gotoy julolo fennaka kesen kesen jang konte mamoy fonde ma boy din din faloli min di bali ɗum ni san yowtilole boyta ɗin ɗin e fulanti jang gambia talen promotionnal fulanti jang itolle ɓe jan mbiye ñaato gambia gambia talen promotion mum tolle tati aliŋe makoye e ka gambia la londole pus ñaato niyamoye gambia talen promotion wole mandi ka kaŋola ka gambia la londo samma ñaato ay wule déglu leen déglu leen déglu leen ko gambiyante leen amul morom dina la bégal waaw Alimbara Gambian Talent Promotion Alimbara Allodulala alibe karandirola entertainment aliba belela duniya kono gambian talent promotion gambian talent allah kodiyatan ye alinga badiya nunanga badiya political ooh, na na na na na yeah. It's a man, Mr. Mighty Joe. I always stay tuned to Gambian Talent Promotion. If you want to see celebrities, new hit music, new music videos, you know, updates about what's happening, please, guys. To my brothers and sisters, Ayo Baby, always stay tuned to Gambian Talent Promotion. it's a man Mr. Mighty suma téléphone de Sawuja dañu baaga dañu hit suma téléphone de Sawuja baby baldi ma déglu leen déglu leen déglu leen ko Gambian Talents amul morom dina la bégal waaw waaw déglu leen déglu leen balaa maa ñu naan dëkk bi du dem Palama deenu naan dekka biitu dem wayna kala mooy demee fekka enente wun jàmm ku nekk bëgga wana sa morom mel ni jën xam naa su desoon si yéen ni kon du nokki oxygène Pa Ousmane yokkal ma mic bi ndax ma muna na toog dem lu tax Gambia du dem ni lañ Sister Eva Sarr eh ni dem Pa Ousmane Pa Usman. De de de tax Gambia du dem show every Sunday la on Gambia Talents Radio hosted by Pa Usman Diouf and Eva Sarr oh 6 p.m. la GMT just just in case you ain't know. Knew them, knew them, knew them. Luther Gambia do them show Every Sunday night on Gambia Talents Radio Hosted by Pa Usman Juf and Eva Sad Oh 6pm la GMT just in case you ain't know New them, new them, new them, knew them. pare ñaanal pare ñaanal gaaw Ousmane bi Ousmane bi bokk mu lañ bokk yim doom sa bopp yim doom sa bopp

Following the memory lane to history, the story behind the freedom of this country is victory. See, people say that this is the same country that bore the pain her children suffered in vain with their hands and legs bound by the chains that enslaved them, fought her way through the dark era of colonialism, held on farm and hoped for better days during those hard trying times when she was ruled by a dictator, a man who took over her, terrorized her children and left them in pieces from which they are still trying to recover. People say say that Gambia is a peaceful place with an amazing culture. culture. A nation so nice with a beautiful structure that it is home of legends with great legacies, home of icons what praise with the struggles of whom the red, white, blue, white and green flag was raised. A nation known for its peace, love and unity, inhabited by people blessed with beautiful smiles of humanity. See, I am not denying any of that, but see Gambia, Gambia, Gambia is not everything people say it is. Do you know? Do you know that in the Gambia, corruption resides in the hearts of leaders? A place where politicians have plastic smiles fixed on their fake faces, other sweet words, and trick people into believing they're nation builders. Instead, instead they're actors and two-faced cheaters. The majority of the young people in the Gambia are currently unemployed, even though they have the results, the degrees, the masters, and all other required papers. Which is why a lot of Gambian youth embark on the risky journey of illegal migration, a journey that costs most of them their lives as they drown into that dream crushing ocean. You see, instead of figuring out solutions to this problem, everybody is busy pointing fingers. The young people, the young people blaming the government for not creating employment opportunities, for not giving them a chance to prove their capabilities, and the government, well, the government blaming the young people for their lack of diligence. See, Gambia Bingaji's boy Bujanga by high school, and all of a sudden drops out because he can no longer cope with the school system, which he believes is too tough. Mutokir, where is I wajulam, wala mudori kampembera, mora miguram bukoroba bro nakala fajma fanjige and when he's tired of this he turns to the streets and earns himself a certificate in robbery theft and drug abuse su pare halis amut chona bi na mandal jisa tuma dara dem back way see in this country everybody dreams to live in luxury but instead we dwell in never ending poverty do you know why see i will tell you why it's because in the gambia people don't oppose each other with new ideas or innovations no in this country people compete each other with juju and witchcraft the Dihole is someone with bad intentions, so do not be surprised that there is still no development in our nation. See, we are blessed with beautiful black skins, but we have hatred and jealousy in the blood flowing through our thickest veins. Just for power, people in this country commit the darkest sins. Darkest sin. being ages could su anye warudundewo surere, even though more than half of the Gambian populace practices agriculture. In this country, a man can rape an innocent girl, take away her pride in the silence of the night and get away with it because we are so blinded by our culture. Lumagana na this gambe bimwe, we don't even support our own. Thing I just a promoter who is willing to pay hundreds of thousands of dollars to a foreign artist but is never willing to do the same for his own. For his so Gambian artists will a show. The number of people you find them you can count and know why Chete is with foreign artists binyewe. Kuneka diligently Harris for clothes and tickets, all of that just for show. I mean I know the Gambian music industry has some whack artists who already release crappy songs. Some who are too busy hating and beefing on each other which is totally all wrong. But there are a few good ones who are hardworking and have proven to be strong. So why can't we appreciate and support our own? Legi fundi duga si deka bidega New Gambia. Well, I tell you something. There is no New Gambia. There is just a new government ruling over the old corrupt system, a system under which we are all victims. In this so-called New Gambia, everybody writes and says what they want and call it democracy. Well, I don't know if it's just me or everybody else is actually turning democracy to the new government. We know y'all want to make our nation rise, turn it to a country that will take all by surprise. But see, even development comes with a price. We had voted for change once. Who says we can twice? Power of freedom. Ramadan Mubarak from Gambian Province Radio. Ramadan Mubarak from Gambian Province Radio. Ramadan Mubarak from Gambian Province Radio. yes yes yes yes good morning good evening good afternoon fu ñu waay di dégloo di ñu seetaan si ñeneenti koñi àdduna maa ngi lay bëggee di la dalal bu baax a baax fii ci lu tax Gambia du dem show Pa Ousman Joof nekkal leen ci gannaaw microphone bi niñ koy defee saa su nekk defoon nañ ko last week fekkee waat ko ñu ngi leen a baalu àq ci koor gi ci beneen yoon di leen baalal ñu ngi leen a jéggalu di leen jéggal bu baax a baax a baax di ñaan yàlla ñu yàlla boole baalal defoon nañ ko last week fekkee waat ko this time around alhamdulilahi rabbil alamin xam naa ne joolaa yeeg li nak léegi tay ñu rus ndeysaan ndax ñom or rek lañ ragal koor lañ ragal tay la ñaata wax ak suma yaay si gannaaw rek Gambie ma ne ko ñaata lañ am ne ma foog naa am nañ fukki fan ak juroom ñett ma ne ko est-ce man du may compter ah, sante yalla bu baax a baax bi nga xamé ne wéri koor bi sori nañ ci am 12 more days More des pour mu jeex amin lu yagut ndank metti wuli tamit ah, ñu ngi sante yalla bu baax bim ñu mayé ñu féké ko. du suñ ngóora du suñ coobere du suñ mon-mon suñ bugga-bugga rek lañ am defaluñ ko dara lu tax mu bàyyi ñu fi ni ko Iba dee waxee tey it ñim fi jëlee defuñ ko lu tax mu jëlee leen fii kon yal nañ ko fekkee ay at yu baree baree bari ma ne su weeri koor ñëwee tamit lépp luñ si jaamu yal nañu ko yàlla nangul lépp luñ si def si lu baax yal nam ñu ko fudandiral weccil ñu ko def ko blessings defal ñu ko xiiwal defal ñu ko baraka kon ñu ngi ñaan yalla yi mu jéggal ñu sunuy bakkar lepp luñ ci def ci lu buggut ci lu bañ ci lu tere mu xamné suñ nit yalla ak suñ matadi kon mu jéggal ñu suñ bakkar ma ne suñ demee ba ñaan yalla pour mu jéggal ñu mun ñoo jéggal nak kon ñu ni doomi aadama yi ñu ni né nit ñu mëna jàng pour jéggalante kon man képp ku ma tooñ rek jéggal na la may sakku sa jéggal yowit Pa Ousmane Diouf la fii ci lu tax Gambia du dem show utu fi Iba Sarr ci Gambian Talents Radio ñu ngi leen ay bëggee nama naa ko nag Sara Mbundo suma xarit bi suma xuloo waale maak moom suñ jàkkaarlooyee rek beneen affaire la beneen feem la yéen ñi ñuy déglu di ñu seetaan nuyu naa leen ni ñuy nuyoo buur képp ku ñuy seetaan fu ci waaye munti nekk rek maa ngi lay tàllal suma loxo di la nuyu nuyoo nuyoo buur di la teeru ni ñuy teralee buur di la teral ni ñuy teralee buur Ramatulaay Jóob ngay laaj te ngeene ana Eva Sarr ahankay Eva yàlla dafa def nag su weeri koor jotee moom at bu nekk neexul ma suma biir xol nag waaye ma respectal ko ko nag bàyyee ko ko daf dee jël off pour mun a sellal mu ne pour sëy sëy bi dafa bëgg a nekk maam jaara busoo jamono jii toppatoo néegam toppatoo jëkkër ji ànd like si la nekk nag mu annoncé woon ko dégg ngeen mu ñëw nag waaye li ma leen koy waxee saa su nekk kuy oddoo làmmeñ su noppee rafle two weeks ago ngeen dégg ko mu ñëw fii nag làmmeñam bi xeseen bu mayoral élection ci passé mu ne dafaa ñëw ma da nga jël break iba ci koor gi xam nga rek yaa koy wax ku oddoo làmmeñ su noppee rafle waaye nag xelam maa ngi fi xolam maa ngi fi maa ngi koy bégee bu baax a baax a baax di leen wax ne Iba Sarr dina dellu si waat incha allah ñu ngi leen ay ñuy déglu ñu ngi leen ay ñuy seetaan maa ngi lay jox suma loxo di la tàllal loxo di la dalal di la tatagal suma broda Fax Touré nuyu naa la oncle Ibrahima Congaan ñu ngi lay nuyu bu baax a baax Mamadou Jeete nuyu naa la faamata Famata Jara Kebe maa ngi lay nuyu Adam Touré maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax Ramatulaay Jóob nuyu naa la bu baax a baax Alfousseyni Barry yaa ngi ci biir ah, Lamine Seydi kan maa ngi lay nuyu bu baax yaay baabu Baboucar Touré yaa ngi ci biir Oumy Tamba maa ngi lay nuyu yaay Juwana ak Mariam yaa ngi ci biir bu baax a baax a baax Aji Kanute yaa ngi ci biir fay Sirifo yaa ngi ci biir Bob Sow yaa ngi ci biir Mballo Cheikhou oncle Cheikhou mbaalo yaa ngi ci biir suma sista Fatou Seen Gueye fële ca Gambia képp ku ñuy déglu di seetaan rek ñu ngi lay nuyu di la dalal fii ci lu tax Gambia du dem show ma ne last week gis ngeen ñu toog fii lan lañ doon waxtaanee li nga xam ne moo lëmbe réew mi moo fees Gambia ba ku ci sànni mbàtt mu toj muy lan président Adama Barrow muy nga xam ne demoon na Bruxelles dem defi am donor conference foofu noonu round table donor conference ñu gis xaalis bi nga xam ne jox nañ ko ma ne ñu dégg nag gars yi di ko propaganda ñenn ñi condemn li nga xam ne ñu ngi ko wax ñenn ñi kamit kat ci nguur gi di wax ne kat xaalis bi am lifin la naka yëpp grande la ma ne ma waxal leen waxtaan ak am ñu dugg si ñu fàttali wante waxtaan xaalis bi nga xam ne moo jógee Brussels pour fàttali leen rek one point four five billion euro bi according to the European Union ambassador ci Gambie kat ngeen dégg ko suñ sista am am am uh, platform bi di Fatu Network interview ko mu ngi leen a xamal ne kat fifty fifty la xaalis bii nga xam ne moom la ñuy wax Gambians si am all kinds of misconceptions about it ñenn ñi foog ne kat xaalis bi amin président Barrow dafa jël xaalis bi ànd ak moom ci plane bi dugga si ñenn ñi foog ne 1.45 billion bi yëpp la indee ndoor ñu ne leen ne déedéet xaalis boobu kat am na ci loo xam ne lu luñ joxoon Gambia la dugga si na si réew mi ba pare kat muy 225 million bi ak yeneen yoo xam ne kat am uh, uh, uh, ñu ngi koy joxe ñu pledge ko 140 million Yiros, rek mo ci lo xamne ne grant la li si des disaada guñ ko won te ñu xamal leen tamit ne xaaliss bi ci tenka du ne lepp la president bi di in yeb la ñoo ndax gaay dañ joxe a road map a national development plan a blueprint muy kayit gi nga xamne ne la nguur gi def duñ ci sori ndax waxon nañ leen ko last week kayit gi nga xamne ne la nguur gi kat pour ñom ñu jox ko ñi di development partners yi the European Union, di ECOWAS, the African Union, di United Nations ak yeneen dëkk yoo xam ne Gambia dañ am ak ñoom jàmm ne leen kat diggante 2018 biñ nekk nii ba 2022 ñun kat ci Gambia lii lañ teg lii lañ bugg a def lii lañ bugg a liggéey pour réewi Gambia ñu waxoon leen fànn yi nga xam ne moom la ci gars yi cuus ne moom lañ bugg a prioritise ne moom lañ bugg a jiital pour liggéey ko réew mi ci tënk rek pour wax leen ko njàng mi ci réew mi bokk na ci li nga xam ne ñoom foog nañ ne dañ ko war a farataal pour fàttali leen rek ci tenka wérgu yaram yi réew mi di health care foog nañ ne lu ñu war a prioritize la pour defar ko affaire yi am euh, énergie muy courant ndox mi foog nañ ne lu ñu war a prioritize pour defar la juróom-ñetti areas lañ am am euh, euh, mbéy mi foog nañ ne lu ñu war a prioritize la ndaw yi ak affaire yi liggéey bi foog nañ ne lu ñu war a prioritize la tourism foog nañ ne lu ñu war a la comme ni ma leen ko waxee juróom-ñetti fànn la nguur gi select moom lañ tànn na ne ñoom loolu lañ bëgg gestu loolu lañ bëgg topato. ci juroomi at yi nga xamne mom lañ leen fa gambien ci tek kon suñ démé ba jëlé xaaliss nag war ñom mandu mandu gu day ni wax gambien si ni xaaliss bobu niñ ko amé ak liñ ci jot ak liñ ci jotul liñ ñu ci may ak liñ ñu ci mayut it's a different story dan ñu dem né jox nañ nguur gi xaaliss rek is different from ñu né dig nañ leen xaaliss ak jox leen pledge gi ñoo dégg niñ leen ko waxé xaalis lo xam la dañ ko diggé plaide bi ngeen a dégg mooy xaalis boobu ngeen a dégg ñu ne nguur gi dañ leen ko jox luñ leen dig la waaye du luñ leen jox kon loolu lu war a leer si noppi nit ñi la ñu war koo fàttali suñ boppa bugg koo fàttali suñ boppa bugg leen koo fàttali ne xaalis bi yëpp kat du xaalis boo xam ne dañ si jot du xaalis boo xam ne dañ ko jël jox ko nguur gi physical cash nguur gi dañ am liggéey bu baree baree baree baree baree baree baree bari bu ñu war a def pour jot ci xaalis bi am na si yuñ leen si dig loo xam ne duñ leen ko mus a jox am na si loo xam ne nag dinañ leen ko jox kon ñu ngi leen ay bëggee show boobu noonu was live I think we did justice to it si talaata bi ñëwaat naa gannaaw bi nga xamee ne latte yi bari nañ ñëwaat na pour waxtaan ak yéen si talaata bi explainal leen brégal leen ko down waxal leen xamal leen li nga xam ne moom la fa taajoo ci jëfi xaalis boobu noonu kon show boobu noonu was live ku nga ko bëgg a seetaanaat rek mun ngaa dem ci youtube bi nga seet Gambian Talents am promotion nga subscribe to our youtube page incha allah di nga ko mun a gis amin ah, di nga mun a seetaan show boobu noonu amin yëpp lépp ñu ci waxoon di ngeen ko dégga lépp luñ ci leeral di ngeen ko dégga lépp luñ ci waroon a xam di ngeen ko dégga kon ñu ngi leen ay béggee di leen dalal bu baax a baax Opa Ousmane Cham ñu ngi lay nuyu mu ne am um, national debt has now rise to 58 uh, billion dollars as a result of borrowing mooy xaalis bi nga xam ne dañ koy jël di ko àbba am um, Safras Omar mu ne where are you from online I am watching from Euh, Bahrain jërëjëf waaye maa ngi fii ci Amérique ci dëkk ba ñoo wax Seattle fa laa nekk nii ñu ngi lay bëggee Ramatulaay mu ne from one mess to another cey Gambia Alaaji Ndaw nuyu nañ la bu baax a baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen nañuy déglu di ñu seetaan ñu ngi leen a fàttali ne lu tax Gambia du dem show la the show is live numbers yaa ngi noonu ci seen screen bi ñu ci nekk Angleterre 161818707 161818707 ñu nekk Sweden 0855926651085592665 F1 ñu ci nekk America 678 608 3322 678 608 3322 mun ngeen ñoo jokk yi tamit ci skype bi Gambian Talent Radio mooy suñu skype name Gambian Talent Radio yéen ñi seetaan kat maa ngi nii di pin yëf yi foofu noonu ci seen screen bi ngeen seetaan ko waxtu baa ngee dem mu ngi ñoo jàmbu tey lan la waxtaanee fan yi ñu paase gis ngeen réeréewu leen mbir Kiri di APRC candidate bi ah, fo Gunjur ki taxawalon APRC nga xamne ne ah, ñu ko Omar Touré mom la kat yalla dogal mu def audio ñu ne si audio bi kat saga na ki ñuy wax president Adama Barrow na ki ñuy wax lawyer Ousseynou Dabo ooyee len ay tour mané as usual ne ko gaay di defé ci réew mi ñu bari niñ leen koy waxee saa su nekk suñ level of awareness is not very high last week biñ fi toogee ci show bi laaj nañ leen ne leen yow mii di Gambian xaalis bi nga xam ne moom lañ jox réew mi supposedly suñ ko waroon a partager moom lañ dig réew mi kon suñ ko waroon a partager Gambian bu nekk dina ci am lu mut junne ñeneenti téeméer ba juróomi téeméer am am am am am am uh, uh, lefin uh, euros lolou soko sété ci si am am am Gambia dina wara jégué am juróom ñen fukki junne ba téméri junne dalasi ñu len leen ne ku am ci yow naka nga ko doxalee ñu bari du ga wax. mané ñu am ki nga xamné kat am am am moy am Mr Assane Diallo docteur Assane Diallo mu dugg ci won nga xamné ne économiste la ak ki di am Mr Ndjay ñu dugg si nak ñu laaj len lan lañu prioritize foog naa ñu bari d' nañ ne education is key jàng ak jàngal waa réew mi is key luñ war a xam la luñ war prioritize la ndax suñ level of awareness as Gambians dafa loo bu baax a baax a baax a baax a baax jànga daf ñu war as a country we have a long way to go because of suñ awareness level political maturity bariwut ci suñ réew ñu xam-xàmmee ràññee ba pare di jëfee it bariwut ci suñ réew ñun xamuñ politique of engagement engage each other macooli ñu xam ne politics kat dañ buggal réew mi leen na ñun ñëpp mooy dem kanami réew mi ñun ñëpp luy suxari réew mi lañ bugga ñun ñëpp luy yóbbu réew mi kanam lañ bugga suñ only difference mooy suñ approach muy suñ jaar-jaar fuñ bugg a jaar te foog naa ba ci diine sax nag jaar-jaar lu am solo la yàlla forcé wut kenn moo tax ci suuratul kaafiruun na ci fin ba mu ne yonent bi salallaahu alayhi wa sallam wax leen ne lakum diinukum waliya diin nañ jàpp fi ñu jàpp nga jàpp fi nga jàpp nañ góom liñ jom nga góom li nga gom oo leen si sa diine ñu ñëw uyu la suñ la nangoo uyu wasalaam suñ la nanguta uyu si yow bu leen fekki nañ jàpp fi ñu jàppa nga jàpp fi nga jàpp kon ñun ñi nga xam ne dañuy uyoo jullit ñun ñi nga xam ne dañuy uyoo diine te ñu ne Gambia dëkki jullit la ñu ne Gambia dëkki chrétien la ñu ne Gambia dëkki diine la gis nga ma leen a wax saa su nekk duma ci daw duma ci xàddi duma ci sonna duma ci tàyyi di leen fàttali di fàttali suma boppane du waay di uyoo da nuru ci tuur bi ci jikko ji ci jëmm ji ak ci melo bi ma ne ma delluwaat fa lu waay di uyoo da koy nuru ci tuur bi ci jikko ji ci jëmma ji ak ci melo bi ne jullit la ne christian la wala ku gëm yàlla la should not be just by word of mouth should not be just through the tongue danga ko war a jëfee angale yi ñu ne la live and let live séntu asamaan jarut buuxante ndax fu waaye teen jàkkaarloog jaww ji ak foo munti nekk nag ci ñeneenti ko ñi àdduna penku xarpu ngopp walla ngalandoo foo ci teen jàkkaarloog jaww ji kon Gambien si nañ leen ubbi suñ xel yi ubbi suñ bët yi ñu xam ne suñ d' accord utee it's ok ñu ñàkk a d' accord suñ gis-gis yaa utee képp ku si d' accord ut ak nit jéem a la fexe sa kéemtalaay kàttan nga seet nooy mun a def ba convince boromam ba mu gisee fi ngaa gisee soo jéemee jéem sottiwul nga bàyyi ko mu góom lum mu nga góom li nga góom nga respectal ko lu mu mu respectal la lu mu góom loolu mooy li ñoo ooyee démocratie. waaye nag saaga ndey du lu war saagante ndey du lu war xasanteeg ŋàññante du lu war kon nañ leen bàyyi xel loolu duñ def dara nag loolu playal leen audio bi di 6 Mr Touré nga xam ne def na video audio kon ŋàñña ci président Adama baro ŋàñña ci loya Dabo. su dul dara sax ci teggi ni koor gi ak oda kilifa yi nga xam ne ñu ñoo seetaan ñu cëral plateau bi ñàkk a play bi waaye dinañ play vidéo bi nga xam ne police yi arrest nañ ko ak ni nga xamee ne encounter boobu noonu la demee ñu diagnose ko ñun ñëpp ñu waxtaan si lines ya open ku bëgg participate suñ play video bi ba pare mun ngaa dugg si nga participate yéen a ngi déglu di seetaan lu tax Gambia du dem show jógee ci Gambian Talent Radio Pa Ousmane nekkal leen ci gannaaw microphone bi kon duñ def dara lu Please. I'm proud of the So, obviously, my eyes are fine the ya, next time. Me ask if I'm going to So, I'm So don't of them Um, I'm actually a young friendly, but come here, politics long term. Mm. You understand? Mm. And in politics, we things. Okay. You understand? So, what I think, but my name from her directly, hmm. come here, Bulala thing, or Bulala Molia, hmm. you understand? Hmm. More working. Okay yade so ni jam kal don ko be politics don don wala tin nambe jam ko mi la ban ko kam mana sa ni ngala audio ko so ni ko ko den dir ko ni da mana ni ara ha ni ni diro ni bina ba ni president kalifin ha bar ma min ni diro kam ko ni kan ma min ni diro kam o mutu ne ro da wulo hambo le obe so mo ne ka fa do ile mo ne ka do wuliya yo fa alfa banko alfa wona maa min moni fuɗa kutato ka ala kono timmin jowo rokku mo fuɗo maare ya ngaron ne ngaron nakada min fo Yeah. Yeah, I understand. Okay. But in this on the move, not for like, but man mean like the way you people are thinking. Okay. Yeah, because man left it directly. I don't turn in the fara directly. Yeah, yeah, directly. Nah, okay, but let's say yeah, I turn on coming on in the fara. But as a young friend. Yeah, I just made enough family. Friend, but the bad and baron, you know. no amake ko yaaja men nde nafa fenel faka to man yaari nafa nafa ngona ah faba ka to ya? man jara amako ka en nafa fenel ko men like ngaja ko nappa tiri da sollo ya understand wodo na ten namba diam so wa bi handis no no no no mo man ke mo man ta ya ko no. mo man ti bula ndanga jël rek mul tagi am lu ci way bisu am tafi defu ne ko mbar nga diaxal bar fi non non la man ko kan banko la kolon so e bu say bu ab fete mu adam mu nek na banko e adam man senti na banko ba ko politique ko bro politique ko fam do waro ko politique mais ya. politique ko ko ba hani man dara ko no say way para ila ba fere ko fam la audience appelé yena mo ni ko bani fa ko sama fa yamen ro mam bala ka ta kam foro o ro sa kala fam man en kare ki sa wala min ko min problem on ene be na tan ko me nen dre fotambul alam baro then I'm very sorry. I'm very sorry. Yes, please. I'm very sorry for that. Okay. Yes, Mr. President, that I'm not coming and draw to Rambul. Then I'm very sorry for that. Yeah. Hmm? I'm demanding directly. kusunka jamu ron komi politiko kanyo to sa jamu no fuera audio to if you can remember they repeat by jamu no fuera audio angalo ne komi no ima ko ima ne directly sa jamu no fuera audio da repeat ba elbe ni pe to na fuera ko no ya me pa pa jamu no fuera ko ta repeat yo ko ta ko ta ko ta Anakadengere ah, ah. waaw jërë ngeen jëf yéen a ko déggandoor yéen a ko gissandoor ñu seetaan ko dinaa ci delluwaat nag in a little bit pour suñ askan yi nga xam ne dégguñ soose ñu xam li nga xam ne moo fi xew kooku ngeen a gis noonu mooy Omar Touré di former candidate of APRC ci Gunjur dafa defar audio ooyee ci président bi ay tur ñu mel ni Lawyer Darboe ak ñoñam ak ñiy liggéeyal nguur gi ñi ngeen gis noonu ci oto bi ak moom ay officers of the Gambia Police Force lañ si kanam tuuti nag dinañ dugal kii di David Kujabi nga xam ne mooy di public relation officer of the Gambia Police Force ndax ñu ne werante xuuxaan rek si Mingemba pour ñu laaj ko ay questions ci lii nii arrest bi ndax Gambia Police Force ñoo ko am joxe dogal bi ndax ñoo ko am authorize ak lan mooy woon di reason pour ñu arrest ko liñ dégg si vidéo bi nag gars yi laaj nañ ko lan moo tax mu saaga président Adama baro lol lañ ko laaj lan moo tax nga saaga président Adama baro si soose mu ne politique la ñu laaj ko ndax ci jamono politique lañ nekk mu njëkk dinaay ne saagut président bi gaay ne ko danga ko saaga ndax saaguloo ko mu ne su dee dama ko saaga yi tamit maa ngi jéggalu dégg ngeen mu ne président Adam baro am sorry maa ngi jéggalu su dee dama la saaga politique la rek dama gis nit ñi di wax rek manit may wax kon jang gi ma len wax ci gannaaw mu ngi nonu gambians when will we have our own mind just because gis nga nit ñi di wax rek dafa wara tax yowit nga wax so demé nak bay wax kon nga wax lo xamne dang koy wax tek ko ci place tek ko ci yar ak teggin mom omar lim def audio bi jot nañ ci rafetut ken warta saga ken ken warta khas ken gir politics kem it doesn't matter who you are nag ni ma ko yàgg a waxee tamit ne leen su àdduna yëpp doon def lu rong du mu sa tax lu ron too nekk lu baax su àdduna yëpp doon def lu baax it du mu sa tax lu baax too nekk lu bon kon yéen a ngi déglu tax Gambia dem show ma playaat audio boobu noonu ñu lapatoo leen li nga xam ne moom lañ wax ci soose ñu playaat ko one more time ah, yéen a ngi seetaan lu tax Gambia du dem show Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi defi utu Iva Sarr ñu playaat loolu one more I'll borrow from him them for one ko déggandoor mu ne président adama baro lépp lu ma la wax rek waxuma la suma boppa laa wax maa ngi lay jéggalu maa lay nga baalal ma àqa lépp lu ma la wax rek waxuma la suma boppa laa wax loolu la jot a wax noonu dafa jéggalu njëkk commencé jéggalu président Degen gen kweksyon mwenja kebi ko polis ofisa bi laj lan mou la dugal ki saga prezident bi. Lon la ko ofisa bi laj lan mou la dugal ki saga prezident bi. Aman kwe seman senti, but komi an politiks nan dron, jan onestan. Anon politiks, dikonsi an meratins, jan onestan. So wala teni la, bagman nem fana direkli, komi ka blara teni, blara mou la kon, blara mou la. Jan onestan, mou wakit. Oke, so ni don ko wala ko mi la bam ko kam okay bim lan dugal si saga presiden bi mune politics la rek wu mako directly wu mako dugga ci ay nitam dama ko sa dama doon wax rek politique la rek sooy wax waxi politique dangay wax lu bari saga wu mako polis bi laajaat ko legi ne ko ndax saaguloo ko ndax suñ la sa audio bi duñ dega saga fofu nono loolu la ko wax ndax suñ la playalee sa audio bi duñ dégg saga. ñu demaa bàyyi président Kaliphone. ah bari maa min mu ne ko ndax yow oyewuloo ko président mbam mbaam bu ñuul. président ni mbaam. doo kame ko ñu maa min nen doo kame. on tuñu yoro. ambo le wobe. so mo ne ka fa do yo mo ne ka do wuli ya yo fa alfa banko alfa mo ne dégg ngeen police bi lim ko laajaat ne ko ndax oyewuloo ko fenkat ndax war ngaa tiim kilifa kilifa réew mi njiiti réew mi di ko oyee kat loolu la ko wax ko um, Yeah. Yeah, I understand. But it interesting mo ah, dégg ngeen ko mu ne leen man ci suma biir xel dama ko wax rek waaye li ma wax miineew ma ko like the way you guys are thinking comme ni ngeen koo xelaate man miineew ma ko noonu. ok yeah because I don't have any for mu ne saagaw ma ko directly te duma ko saaga directly gars yi insist ne ko waaw danga ko saaga kay. danga ko saaga. kon dégg ngeen lim wax. su dee dama ko saaga yi tamit maa ngi jéggalu maa ngi baalu àq. su dee ngeen ne dama ko saaga maa ngi jéggalu maa ngi baalu àq. there you go. dégg ngeen li ko police bi laaj lan la la Yaya Jammeh njëriñ ba tax ngay saaga Adama Barrow. déglu leen foofu de I want you guys to underline foofu lan la la Yaya Jammeh njëriñ be tax ngay saaga Adama baro non amante ko Yaya Jammeh dina faa mu ne ko nekku ne Yaya Jammeh def ma njëriñ dara. Ah, laajaat na ko it Fabakary Tombong Jatta lan la la njëriñ mu ne ko Fabakary Tombong Jatta itamit ndekku ne daf ma njëriñ dara mu ne dama gis ne suma parti leaders lañ te loolu rek a tax ma am ah, lifin leen dama gis ne sumay parti leaders lañ rek moo tax dégg ngeen police bi si background bi yéen ñiy call noonu bala leen ma ma play audio bi su ko defee ñu waxtaan si mu ne ko lan la la Yaya Jammeh njëriñ mu nekko nekku ne daf ma njëriñ dara lan la la Fabakary Tombong Jatta njëriñ mu ne nekku ne daf ma njëriñ dara su maay parti leaders lañ rek moo tax dégg ngeen police baa ngee wax foofu ne Kairaba station kon boog ñu jàngee si ne biñ ko jàppee Kairaba station lañ ko yóbbu ndax am na ñuy wax rumeurs yu bari famille bi démb si guddi am na vidéo yuñ seetaan ñiy wax ne ñu ne famille bi ne ay poli mofti people in mofti ñoo ñëw jël si ko di insinuate ne SIS bi la muy former NIA am ñu wax ne kat Karaba station lañ ko yóbbu kon from the video liñ dégg police bi di wax police baa ngi joxe directive ne nañ ko yóbbu Karaba police station kon lu si munti nekk kay tamit suñ koo seet nañ dem Karaba police station seet ko fa waaye dinañ wax ak David Kujabi ñu continuer rek to break down the video mu ne kenn dugalut ko si kenn dugalut ko si ndax laaj nañ ko ndax dafa am ku la santa pour nga def lii di insinuer ndax APRC ñoo ko santa mu ne moom kenn santut ko ko moom moo gis nit ñi di wax rek moom it mu jóg pour wax. non non non man ko balasé wuti pour banko kan banko la kolon so e bu say bu ah, fuite mu adam mu nekk nga banko yi adam man senti nga banko yi ba ko politique ko bro ok mu ne ko lan la adama yàq si réew mi loolu la ko police bi mujjee laaj lan la adama yàq si mu ne ko adama yàqu dara si réew politique la rek waaye Adama yàqu dara ci mu laaj ko ndax si jamono politique lañ nekk loolu la ko gaay di laaj ndax si jamono politique lañ nekk mu nekko ko déedéet nekkuñ ci jamono politique mu ne ko kon lu tax ko saaga mu ne saagawuma ko directly mu ne ko waaw kay danga ko saaga kay soo buggee ñu playal la sa audio bi léegi soo bëggee ñu plaire la sa audio bi ok su ne saaga na ko one minute gars yi ne ko yaa ko saaga mu ne déedéet ma ko si kanam ñu ne ko yaa ko saaga saagawuma ko yaa saaga mu ne waaw léegi maa ko saaga su dee dama ko saaga politique la woon rek wala amin am am am teyiwuma ko wala même problème on te ene naata nu comme waaw fu mujjeewaat rek delluwaat na ci njéggal gi rek ci tuub tu fekkee ne daal ngeen ne dama ko saaga su dee dama ko saaga kon adam baro maa ngi lay jéggaluwaat ci beneen yoon. I'm very sorry. Yes, I'm very sorry. I'm very sorry for that. I'm very sorry for that. Yes, Mr. President. I'm very um, sorry for dama la saaga am very sorry for that. saagaw ma ko directly déggaat ngeen mu ne saagaw ma ko directly degan ko saga wo mako directly politique la dama de ñon toñante rek wa ñu ne ko lan nga wax sa audio bi kon mu ne a ah, xamna lima wax kay ne ko kon li nga wax ci sa audio bi nga derlu si suñuy waxante degg ñu waxante degg kon li moy video bi yena ko setan andor yéen a ngi déglu di seetaan lu tax Gambia du dem show lines are open now you guys can come in su ko defee ñu waxtaan ah, number to dial su dee America ngeen nekk 678 608 3322 678 608 3322 ñi si nekk Angleterre ñu 818 7077 161 818 7077 ñi nekk Sweden 08559 26651 08559 26651 kon ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax baax di leen dalal di leen welcome ci lu tax Gambia du dem show Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gan now microphone be Abdul Wahab mu LOL is yellow print not a blue print Mune is a yellow print, not a blueprint. Umitamba mune thanks pa for good work. May Allah bless you, Jere Jefwai. Marimba yung lai bege, Anama Namu, Jeng yung lai bege, Aison Samba yung lai bege, Amadu Jalo yung lai bege. Um, JB Sane mune, um, that's true, my brother. Jere Jef tulai mo pase di manglay ndu buba khabak. Mama Sidibe manglay niyu, DJ Mojo, Job manglay niyu buba khabak. Ramatlai Job mune, this is clearly Jamme style. Shame on this new government. They better release him wreck. Nenen ko release. Um, Lamin Sedi Kar mune, they shouldn't video his arrest. My question is: Are these people police or lawyers? Um, uh, half of this is uh, nonsense. You can't have uh, partial democracy. loolu la Lamine Sey di wax you cannot have partial democracy kon mun ngeen a dugg si yéen ñi nga xam ne yéen ay déglu ni ma leen ko waxee si gannaaw dinañ call David Kujabi nga xam ne moo amee Gambia Police Force. sa collection bi ngay laajte noonu Lamine Seydi Kane muy Elboy uh, LSK um, dinañ la dinañ laaj David Kujaa bi collection boobu nga xam ne moom nga laajte mooy ndax police yi ñoo ko arrest ndax arrestuñ ndax kiñ jot a gis ak ñiñ jot a gis gars yi soluñ police uniforme kon yéen a ngi déglu di seetaan lu tax Gambia du dem soo ñu nga ame kola on the line ñu jël kola boobu um, hello kola hello kola dafa mel ni ñàkk nañ ko la boobu noonu rek political man political man mu ne dafa mel ni kola bi mu ngi dugg si waat rek ñu jël kola boobu noonu hello kola waaw waaw na nga def fine nakam sant yàlla bi bari ñu ngi lay nuyu di la dalal ci lu tax gambie du dem show jërëjëf mhm. pa bio bi nga play noonu dafa signify tey rek ne dara ci ñun Gambia mhm. te li nga wax tamit ci body society education ñu xam mhm. likewise the professional services tamit ñu mhm. professional in their duty mhm. bu yàggut nii rek gis nga police ñu ngi bind ay billboard ñu ngi try to restore trust on the people The amal ko on, te lu ko my things like this thing right now man we need to jii kiñ tee nii di Omar Touré eh, on a court of law dañ ko wax law, mu contest on the dress so ki Amud, um, they have no charges against him. Mm-hmm. Secondly, Manasseh Bena Odio mm-hmm. from the UDP forum, a mm-hmm. guy was threatening Adam Barone, so that head double in Korea. Mm-hmm. That that audio, Ghanaian to hanya ñun comme dema lu kii wax ne sa naka makuma caam naan couleur dañ ko dee bàyyi gannaaw ba suñ kon kanam kenn du ko faate mm-hmm. ñun Kini Gambia um. La tax ba President Barrow kuy moom he's a human being a president Well, moreover this guy belongs to a party ku nekk xam na how fragile this country is right now in terms of APRC and UDP and the government so police yi are they segment of the police force want to sabotage or they are wanting to do their good job but Kendre would mbir ne li Gambia right now di ka bit unstable traitement party na sunjiko right now. So two things here right now. Police link up to are they part of the bad bad baggage ni sabotage the police force or that dañ def lii nii pour bugg build trust from the government hence the economic force in the Gambia ak coow yëpp naan Barrow nekkul di trust security force for poison but even having said that this is not how you build trust soo ko ñàkkee après kii kii dafa man si man li man dégg naa wax in different platforms naan kii dafa Saaka Barrow ñu ko fii bla bla ba tey laa dugg dugg di full version of story ne dañ ko waxloo dañ ko saagaloo dañ ko apologize loo kii dañ ko war bàyyi ba pare kii am na a case am na a case against the IGP mm-hmm. ba tey Gambian professionalism in the police force dafa def part te du musa am te déwul new professional in ba àdduna tukki buñ wax loolu fee dawuñ xàddi wuñ dang ci am cër ma am ci cër keneen am ci cër te wax ji ñuy wax ni bul ba am ah, réere ne lu am solo la te lu luy mun a wecci la comme niñ ko waxee ñun leeral moo ñu fi tax a jog te dinañ oo ki nga xam ne mooy David Kujabi am ñi arrest kii ñu ngi doon wax ci seen coobare boppa am correction siñ ko laaj président Adama Barrow la saaga is that really the reason why he was arrested ndax dafa am benn luwaa ci réew mi bu wax ne président bi ku ko saaga nangam jot la buñ fàtte mbir nag ne am Yaya Jammeh amoon nañ media bill bi media law bi nga xam ne paasoon nañ ko bi nga xamee ne imam Babali génn na foofu in 2013 ndax 14 boo xam ne dafa waxoon ne képp ku ŋàññe any public officer loolu luwa la ci nguuri Gambia de ba tey si luwaayi Gambia si suñ constitution bi ba tey luwa boobu fooguma wecci nañ ko moo tax Gambians cannot ask for anything better from this government than constitutional reforms ñu gaaw seen kéemtalaay kàttan pour wecci constitution bi ndax su fekkee ne loi boobu mu ngi ci suñ bug bi ba tey mu ngi ci kayiti réew mi ba tey kon kii nii luwaa dafa tegu si kawam kon kii loi dafa tegu si kawam ndax loi la ci biir loi réew mi ba tey loi boobu weccee koo waaw waaye pa xam nga xam nga wax ci ñaar la gis nga even Angleterre sax soo saaga queen bi sax you are liable you could be and sentenced waaw loolu moom FNAC everywhere mhm. but the truth moo daay moo lu lu waxut mooy li nga wax noonu mhm. mooy suñu liy naxaree mhm. nañ dem sa ndey mbilag ga ndey mooy lan national assembly naka di constitutional reform bi waaw waaye nag loolu ak maara maara gi yëpp government bi still have a lot of leeway acting under the laws of the land maara maara gi yëpp coow li yëpp foofu la ba tey jii fee defuñ constitutional reform fee wecciwuñ constitution yi réew mi lu bari lu ñoo def ku ci dem luwaay tamit mun nañoo tok fi di wax démocratie ni ekkati suñuy mbag sax ay laaf def lu nekk lolu yëpp duñ dem fenn té wecci wuñ constitution bi ñun suñuy wax ciow li ciow li coow li yëpp liñ war a coow coowaaguñ ko moy lan nañ change loi parce que loi réew mi mi xamé dafa empower ni ay mo def lu ko defal waaw moo féewa diis tiful ba tey loi yooyu ñu ngi in place ba tey loi yooyu lañ war a njëkk a te waxuñ ci lu bari liñ ci jot a wécc rek mooy li leen fii ba muy age limit beeg ñoom seen pour ñoom politiciens ci lu leen yóbbu kanam loolu lañ ci jot a prioritize the rest ñu ngi koo wax ñu ngi koo laam-laamee bokka na si seen priority areas yi ñu wax ne moom lañ bugg a def muy um, good governance and democracy respecting the rule of law and human rights bokk na si areas yi nga xam ne moom lañ wax ne moom lañ bugg a suuxat ci seen national development plan bi waaye at the end ndax taxaw nañ ci comme niñ ci war a taxawee gis nañ amin baata indi yooyu noonu waaye duñ def dara Pa Ousmane rek ndax balaa doog di jot Gambia ma kool kii di David Kujabi rek foofu noonu ci Gambia moom mi nga xam ne mooy police PRO bi pour ñu laaj ko ndax ñoom ñoo digal ñi ñoom ñoo joxe responsibility pour ñu arrest ñi or not kon su ko defee ñu dugal David Kujabi si line bi rek yéen a ngi déglu lu tax Gambia du dem soo jógee ci Gambian Talents Radio ñu ngi leen ay béggee di leen dalal bu baax a baax a baax amin ñu ngi kool David Kujabi right now kon lu tax Gambia du dem show la Hello? Yes. Good evening, Mr. Kujabi. Yes, good evening. This is Pa Usman You're calling you from the Gambian Yes, Pandiri. how are you? It's Pa Usman, not Panderi, Pa Usman. Pa oh, Usman Pa yes. Usman, how are you doing? I'm good, sir. How about yourself? Very well. Yeah, good. Um, I am calling you. You are live on the Gambian Talent Radio, and we have some few questions for you about the arrest of Mr. Omar Toure. Um, can you confirm oh. for us if this arrest was um, actually authorized? You see the video circulating. Faustman. Uh huh. If you're hearing me, can we please do this tomorrow? Um, yeah. um, we will do a press release on this on this arrest. We are live on the radio right now, and we only have this show yes, right but now. but I can't offer you an interview right now because I am at the program. It's a Sunday. It's post communion in Gambia, and I am there. Okay. So you cannot give yes, any information about you cannot no, give I can't any give an interview today. I'm, I, I, I'll do a press release over this um, arrest tomorrow. You will do a press release. Please send it my way. Yes, you have I, my contact. Please send the press release my way, please. Okay, okay, I will do that. All right, thank you very much, Mr. Thank you, for the... waaw yéen a ko déggandoor kooku mooy David Kujabi mooy ki nga xam ne moo amee kàddu Gambia National Police Force tey la first communion foofu ca Gambia Christian la obviously gaa yaa ngi foofu di celebrate loolu ñu ngi foofu di yaata yumbe I mean of course it's his personal day off dimanche la waaye niñ leen ko waxee in the past rek I have interviewed David in the past on Sundays Gambian people bi ñoo ko nekk di fay xaalisi réew mi lañ koo fayee and he should be readily available at any point at any time si lo xamne dafa nek di am am geten rew mi su xapune warnam se muna wax mom uh, ah, Mr Kujabi he should be readily available kon duñ def dara lu dut ñu jël dis order caller on the line pour waxtaan ak mom rek yena ge deglu di setan lutax gambia du dem so joge fi ci gambian talents radio amen ñu jël caller bi on the line rek hello caller hello caller Yes, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Yo mbal konto na sunkaro folo. Yo mbe jola ifana Ramadan Mubarak. Ramadan. yo ntele mo musa trawalle molu yallo man pas man be jamani man pas man be konton na jamani kol be nyaadi jamani kol be jay be konton na be duwala banko be si bani jata ken be ala mhm. amin ya rabbi that's good aha ite ne soto ila fita men jansa la programme oto Uh, definitely boyo ñin alkurano sango ya fole momen be i ñaato i mañanna mm -hmm. uh, i naka ka doya o keta i kotomale ti kono ba fo i famalen ba mm -hmm. fo iku mo le mu meya lonko ala ya bula i ñaato duŋo men na toña toña toña i mañanna ka men mm -hmm. to toña toña démocratie bi je nsi si mm-hmm. karkacco le ŋa kuwolu ila natalolu fenke wo fango Uh, nin démocratie fore rewoɓe kering but uh, ni e bonɗi ida kono rek hanni alimo fulo ini fulango na ɓe kacala nin nendiro bota rek a jama jama ka kuwo tiñale hanni ini la muso fango tema yo so nte si men pono gambiyankolu yaalo eh, yalo ko démocratie bari mo jama be gambia ye malo mune mo démocratie ti démocratie manje ko nga ñoon ne ntelu be jaman janne full démocratie ne jam mais mm-hmm. yalon ko amantara bangu jama fango ko europe bari ala ye men bula i e ñaato lungo men na a ko n ka wolu buɲa le nka wolu nka ye tandi wolu la ko ala ye tele bula je bi to ɲa to ɲa to ɲa to ɲa mhm. boyo la nen doro man beteya mhm. bari a fana na keso futata dame to ɲa to ɲa la keso man ɲa na futata woto mhm. wato men na a y'a fango sayi parce que ala fango y'a le ni kafiriyata fango ala bulu i kafiriyata ako yele ne wato wati tubo wato min tuuɓo ɗum ndelatonnoma kono ko to ye ku jawol men ke itowo keela kote ke mm-hmm. to tuuɓo te mariele tuuɓo data ite mariele ye tuuɓi ye sama sa ala ya mm-hmm. so biri wato men na boyo ala ndro ke anata fo kote ke oto mr president isi ha ko boy ndiñe toña toña toña mm-hmm. kesi ñimɓe damen mbiɓe a na ka futa woto okay because of why ye democracy le fo ñe bari ala nendrole yati na wo kesol be da yelata mm -hmm. ko to asalon ko to nyato nyato ko amanya na wonnena alhamdulillah baraka bake baraka bake munum fanambe munum fanambe la rola e be salo wo ma nyum fanambe yatale sometime because molu salon ko na lan na tambila mm -hmm. nyum fanambe je bake bake bake le mm -hmm. ye areso menke because modolu yamira democratic movement gambia manke woti mm -hmm a baraka démocratie duniya kono yo a baraka ba ke woto mbe duwa ke la albe ani te fako mm-hmm. ala ma yela doko samba anyama ikana mm-hmm. kori la doko la ala ma sima ya ba ani jata kende ani harbi sir badi lela ani nakeba membe gambia ani mobe amin ya rabbi na baraka ba ke kola baraka baraka baake baraka baake salaamaaleykum wa man pass man amin Mr Tarawale nga xam ne mu ngi koolee foofu sa Germany ah, képp ku bugg a participer rek di show is live mun ngay na call am 678 608 3322 678 608 3322 ñi ci nekk Amérique ñi nekk Angleterre 161 818 7077 161 818 7077 ñi nekk Sweden 0855926651 kon ñu ngi leen ay bëggee di leen dalal ah, maa doon wax nga xamne ne David Kujabi di police PRO di public relation officer of the Gambia Police Force mom mi nga xamne ne kat am mo amé cadeau rew mi mo amé cadeau police kon astafurlah Le xew ci police in Gambia Police Force David Kujabi is the one that you say talk about it mu ne kat niki suba dina joxe a press release pour wane ndax ñom ñoo def arrest bi ndax wuñ arrest bi su jëlone suma call dina ko don laaj lan motax ñu arrest ki ni ndax in reality correction siñ ko doon laaj ci affaire yi Fabakary Tombong Jatta affaire yi Yaya Jammeh affaire yi Adama Barrow ak Lawyer Darboe ndax loolu moo tax ñu arrest ko ndax there is really another reason lu tax ñu arrest ko comme ni ma leen ko waxee rek duñ def dara lu ñu kool Fabakary Tombong Jatta suñ ko koolee ñu waxtaan moom mi nga xam ne mooy ndey mbi la gi di party leader of APRC ñu seet li nga xam ne loolu lay wax ni leen ko waxee waxtaan wi dinañ ko xaaj ñaari xaaj tey dinañ njëkk a waxtaan ak ñoom si affaire yi kii nga xam ne jàpp nañ rumo bi nga xam ne ñu ngi ko dégg xibaar bi nga xam ne dégg nañ ko si affaire yi APRC parti bi kon kii di Fabakary Tombong Jatta di APRC yéen a ngi déglu di seetaan lu tax Gambia du dem show loxoy loxo yi tàcc leen waay Hey, hey. moom neex na ay ay afital neexu leen am waaw wallaay kenn bañu ko sama Bakary Tambang Jatta bi lañ nekk di play noonu nge jox am um, Africell free publicity unfortunately am um, number Pa Bakary Tambang Jatta la ñoo call hello asalaamaaleykum You have reached the voicemail of 703 dafa mel ni Bakari is not available um, ndogu mu ngi jot ci Gambia waaye comme niñ leen ko waxee yéen a ngi seetaan di déglu tax Gambia du dem show uh, Moustapha Justice mu ne brother Pa Ousmane have they arrested others how many people have been insulting Honorable Halifa Sallah did they arrest any of them did they arrest the lady who insulted other tribes I mean uh, kooku moom loolu la wax foofu la nekk di génn kon selective justice lañu bari di kaas li mustapha Justice di kaas ni ndax dañoo pick and choose ñan lañoo arrest ak nekkuñ di pick and ñan lañoo arrest loolu yépp suñ waxtaanoon nag David Kujabi dinañ ko doon laaj dégg ngeen li nga xam ne moom la wax mu ne dafa nekk ci fausse commune waaye ñu fàttali David rek he's been paid by the Gambian taxpayers and any time he is needed to clear the air on certain things war na moo I mean create that time ci benn five ten minutes kon ñu nge bëggee képp koo xam ne yaa ngi déglu di seetaan lu tax Gambia du dem show ah, ñu ngi jéem a vérifier information yi nga xam ne moom lañ nekk di am duñ def dara lu ñu jéem a contact kii di Sidi Ndiaye tamit moom mi nga xam ne kat. Ah, mooy waxkat yi APRC dinañ ko contact moom tamit pour waxtaan ak moom pour mu verify some of these things yi nga xam ne ah, moom lañ nekk di wax dara very disturbing information coming out of Gambia the arrest of this guy and of course moom Sidi Ndiaye li nga xam ne jot na koo wax ci génn gi nga xam ne ñu ne génn na APRC ak bokk gi nga xam ne kat bokk na ko ah, mu ngi ko endorse président Adama Barrow ne moom kooku la support suñ duggee si Sidi njaay tamit dinañ waxtaan ak moom yooyu ndax mënuñoo def show te waxtaanuñoo wax ak te laajuñ ko ci loolu kon suñ ko koolee dinañ profito laajaale ko loolu noonu yëpp yéen a ngi déglu di seetaan lu tax Gambia du dem show ñun dañ ñuy bàttali rek ñuy jottali suñ responsabilité ak suñ loolu toog ak yéen fii pour waxtaan ak yéen li nga xam ne moo leen de réew mi lu nopp ñu feeñal ko loolu moo ñu tax a jóg kon amin ñu déglu Sidi Ndiaye rek nga xam ne amin léegi tey ñu jot si li mu jël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 Can I speak to Honorable Sidin Jai? Mandakanla. Pa Usman Juf, Gambian Talent Radio, ci America. Naam, Pa Usman nga ne? what? Pa Usman Juf, Gambian Talent Radio. Mm. Mm -hmm. Mhm. Mangla call. Nam? I don't know. Wow, that's fine. It's fair. I don't think that is um, very relevant. Mangla call live from the radio, and we're just trying to verify a couple of information. Um, uh, I'm sorry. Look, I'm sorry. That call me live already. Thank you very much. I'm sorry. Nam? Mr. Jai? Uh, dafa mel ni Sidi teg na am téléphone boobu noonu um, uh, mu ne xamul ma uh, moo tax maa ngi daylaat laay nam bi hopefully he will pick up uh, moom mi nga xam ne moo amee kàddu APRC Ah, mom mi nga xamne moy wax ci turi APRC ah, ma nge daylaat lay nam bi su ko defee ñu léral ah, ñom ñi nga xamne ñoy ñooy turi parti bi am lan mooy seen stance ak lan lañ dégg ak lan lañ fokk ak lan lañ xalaat ak ñom lan moy seen stance si lii xew ak moom ci li jaay tamit ñu dégg am bi hello hello yes honorable jaay Njie waaw Pa Ousmane again Pa Usman Dufla again. Yeah, I'm sorry. Pa Usman, you cannot just call me and tell me you're live on the radio. I'm sorry about that. I am calling to verify you are the Hello? spokesperson of the APRC, and I'm just calling to verify some information, I mean, from you. Wow, yéen a ko déggandoor Gambia I wonder, can you la the dëkk dem So, fekkee ne ñi nga xam ne Ninga amee kàddu ñi lañ responsibility pour ñu wax ci turi institution ci turi parti ci turi department dañ am pour select and pick and choose ñom kañ lañu wara mëna wax motax ma wax leen ne lu way di uyo daf koy nuru ci jikko bi ci tour bi ci jëm ji ak ci melo bi Gambia du dem saxaruñ sax bay taka is the bottom line You are the spokesperson of a party. That means you should be readily available at any point pour mun wax rek joxeel lenge yi awareness giñ leen Janga wax jàng gi ñoo wax dafa run across the board te dañ foog ne janga gi ñoo wax ni it is just about um, um, um, uh, the average Gambian, the voters, the ordinary citizens, the man on the street did it. jàng gi war a xew ci Gambia dafa war a commencé si kaw wàcc si ba si suuf nit ñi ku si nekk da nga war a xam sa responsibility ku si nekk da nga war a xam sa ruur ku si nekk da nga war a xam sa wareef ak sa warugal. ndax soo demee ba jël responsibility bi your doors should be open at any point to talk. su fekkee ne nekkuloo in position to wax sax still we give a little more credit to David Kujabi dan Sidi Njai hang up the phone ma koolaat mu hangaat ko op. waxal ak di, ci njëkk ak teranga nekkuma in position pour wax dinañ la ko respectal soo si diggante do or die situation soo tollu wutee si time boo xam ne it's definitely a very bad moment su fekkee ne you can spare five ten minutes this is official this is official kon Gambia dañu am jàng bu bari pour nekk dañ war a sàkku xam-xam lu am solo la ci doomi aadama demaguñ de te ma leen koy wax saa su nekk suñ toogee di joobe Gambian journalist yi suñ toogee di ŋàññe Gambian journalist yi suñ liggéey bi is not easy suñ liggéey bi is not easy because journalism is all about having access to information and information is very scarce in Gambia information is very hard to get in Gambia lu jafeña am la soo demee ba ñi nga xam ne ñoo responsible soo demee ba ñi nga xam ne ñoo respon ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo nekk in charge soo demee ba ñi nga xam ne ñoo xam soo demee ba ñi nga xam ne ñoo war a wax waxuñ lii moo tax fake information di go on lii moo tax Gambien si di jaxasoo lii moo tax Gambien si di jaaxle lii moo tax Gambien si xamuñ lan la ñoo gëm because you are hearing information left and right coming from different places from different places from different sources ci ñi war a wax ñi war a privy to information the spokesperson of any institution su dara xewee ci institution boobu li nga war a njëkk def mooy nga gestu you should be able to contact the people that matter ñi bokk ci institution bi dañ la war a reach out to you wax ak yow feed la with the information jox la all the necessary tools and resources ngembala nga pare pour jakarlo ak any institution jakarlo ak any media house jakarlo any court jakarlo anybody any individual kula confront kula laaj lepp luñ la laaj ci affaire institution bobu war nga ko xam so amé cadeau béréb yow da nga wara xam béréb bobu yow da nga wara nanda béréb bobu unfortunately du ci Gambia it's only in the Gambia where custodian of stuff will have to go and find out or will tell you I don't know te nguur gi suñ papa diee jaawo suñ ko laajee question su bari suy def monthly press briefing he doesn't know dafa am pour find out yéen ay te ngeen yow yaa amee kàddu nguur gi David Kujabi amee kàddu police police yi ma laaj ko one month ago kan lan mooy di percentage of ñi nga xam ne mooy crime rate bi indi Gambia munut ma koo wax ki nga xamne moy Sidi ndjay amé kaddu APRC ñu laaj ko munta tontu this is very sad Gambia ngeen ne ñu wecci suñ touri show bi from lutax Gambia du dem show ne tuddee ko Gambia dina dem show kon fekk ñuy nax suñ boppa ndax ñun waajaguñ bay dem ñun waajaguñ ñun suñ dekk bi demagut is very sad and unfortunate when you cannot have access to a custodian of information when ñi nga xam ne ñoom lañ yaakaar anyway nañ génn foofu ñu dellu si waat suñ topic bi Now, ñu ngi gis ñu bari si yéen yéen a binda di kaas lan tax ñu japp ko ma read some of the comments that are coming through mo mu i agree with you bro mustafa justice um lan la mustafa justice wax mu how many audios are around these so called whatsapp call groups did they arrest any of them um, uh, wow mu ne ndax arrest nañ Ken si ñoom ne bro, brother os today that gambia know that the insulting elders is a crime tey lañ door a xam loolu mu ne mama sidibe mu ne hello ñu ngi lay bégee bu baax moussa vero diba mu ne this is um, really sad pa ousmane gambia du dem fen Baj Jamero Assane Fall mu ne Sidi Ndiaye you never ready you are never ready mu ne Sidi Ndiaye musuta pare Ramatlaye Diop mu ne I agree with you brother Mustapha Justice ah, Baj um, Assane Fall mu ne they are fake Pa Ousmane um, ah, King Khalilullah mu ne we have mountain to <laughs> climb we have a ah, <laughs> moom loolu la wax Baj mu ne um, they have prepared themselves because they are not there they have to prepare themselves because they are not there. Mustafa, just this morning, how many insults have been sent to Honorable Khalifa Saleh? They called him different. They call him different names. Did they arrest him at all? Um, uh, Khalil Ibrahim Khalilullah Mune Degit. but money they are fake. Mustafa Justice Mune, brother Pa Usman. The lady who insulted a whole tribe is still working freely in our country Is she arrested and that can be a tribal war in our uh, Gambia? Mustafa Mune, uh, that's right, brother. Gambia do them. Mangi gis ñu bari ñu ngee side jigéen jooju saaga saraxule yi ci time mayoral election si ak ñeneen ñi nga xamne ne ñu ngi saga si whatsapp audio si waye fogg na bala ma me call si waxna len len gis nga Gambia nañ leen bàyyi foyantu bi ak caaxaan gi su aduna yëpp doon def lu bon du mu sa tax lu bon too nekk lu baax su aduna yëpp doon def lu baax du mu sa tax lu baax too nekk lu bon keneen def lu bon warta tax nga def ko keneen def lu bon warta tax yow tamit nga def ko Everybody is entitled to their opinion, their beliefs, and what they think. Suko ko keneen defee nga def ko su luwaa di tegu sa kaw du tegu si yéen ñaar yëpp seen kaw individually la handle handul seen case and yes there is a difference because kooku tribe plus saga. I'm not justifying the saga tribe is right. It's not right. No form of saga day No form of rudeness, no form of profanity is right in my eyes. Condemn, um, agree I condemn it in all its shape, form, and size. waaye li tax ma wax mooy comme ni ma leen ko waxee luwaa yi réew mi luwaa yi réew mi waxut ne ku saaga beneen tribe ku saaga beneen xeet luwaa dina tegu sa kaw waaye nag loi yi réew mi dafa wax ne képp ko saga public official ki ligéyal nguur gi in their capacity as ligéy gi ñoo ligéyal nguur gi loi mu na tegu sa ko loi mu na sa ko kon lolu lu am solo la we are talking about the law here The dugal honorable Halifa Sallah ci line bi moom tamit pour um, jéem koo laaj about lii affaire luwa yi réew mi ndax luwaa boobu mu ngi ci buggi réew mi ba tey ndax nekkut ci buggi réew mi ñu ngi leen ay bëggee di leen dalal ci Gambian Talent Radio lu tax Gambia du dem show ma jokko Halifa Sallah balaa boobu ñu jëla a quick break ñu dégluwaat Lala lim wax ci spoken wordam bi ngeen seet ndax d'accord ngeen ak Lalla ndax d'accordu leen ak Lalla. ñu jokkoo Halifa Sallah following the memory The story behind the freedom of this country is victory. victory. See, people say that this is the same country that bore the pain her children suffered in vain with their hands and legs bound by the chains that enslaved them, fought her way through the dark era of colonialism, held on farm and hoped for better days during those hard trying times when she was ruled by a dictator, a man who took over her, terrorized her children and left them in pieces from which they're still trying to recover. People say that Gambia is a peaceful place with an amazing culture. A nation so nice with a beautiful structure that it is home of legends with great legacies, home of icons what praise with the struggles of whom the red, white, blue, white, and green flag was raised. A nation known for its peace, love, and unity, inhabited by people blessed with beautiful smiles of humanity. See, I am not denying any of that, but see, Gambia, Gambia is not everything people say it is. Do you know? Do you know that in the Gambia, corruption resides in the hearts of leaders? A place where politicians have plastic smiles fixed on their... kon ñu traité kii di honorable Khalifa Sallah rek laaj ko ci affaire constitution yi réew mi ak lan la constitution bi wax ci loolu. To copy this phone ring, press star. Hello. Hello, good evening. Good evening. The Honorable Halifa mm-hmm. Mm-hmm. Hello. Yes, Honorable Sala. Yes. This is Pa Usman Juf calling you from the Gambian Talent Radio. How are you, Pa Usman? I'm good, thank you. I am calling um, just to verify some information. We have seen. Um, mm, well, I cannot. Uh verify information, I think you just simply uh, contact me so that we can arrange an interview, please. Mm -hmm. I think we have established that, that standard before. Yes, I remember uh, talking to you. Get in touch with me, fix an interview, mm -hmm. and then tell me what we need to discuss, mm -hmm. and then we have that. Mm, you know, otherwise I become an, <laughs> an informer. <laughs> I think you should give me the regard. I absolutely respect respect that. It's just we have this show that we do every Sunday, and it is the show in which but we discuss please, these issues. Please, I cannot participate in such shows mm-hmm. because I am an uh, an, an, official of, of, of, of a state. I'm, I'm, a National Assembly member. Mm-hmm. Uh, I cannot be treated like an informer. Okay. I should be treated. Yeah, I should be treated as somebody who can give you mm-hmm. uh, substantial information. If you mm-hmm. tell me what you want us to discuss, mm-hmm. if I need to do for do further research, I'll do mm-hmm. further research and ensure that what I give you mm-hmm. uh, is not just an opinion, but uh, would be the fact. Mm-hmm. Okay, that is um, fair enough. I respect it for you. Um, uh, thank you very much. We will um, contact you um, accordingly. Yeah, get in touch, yeah. Get in touch, and uh, we can have good interviews mm-hmm. uh, so that I can clarify whatever you want me to clarify. Okay. Thank you very much. I'll send yeah. the team in the Gambia to come over and, and, and, and, and discuss that. Thank you, Honorable yeah. Salah. Yeah, yeah, mm-hmm. please, please. Yeah. Thank you very much. Mm-hmm um, uh, Yena Kodigandor, Kokumoy Honorable Khalifa Sala, of course, National Assembly member for Serekunda, and of course, um, the leader of the Doi party. We were contacting him in his capacity as a National Assembly member who is very privy to the Gambian constitution. Uh, but come Nimalen Kowahe we have a long way to go. Still, much better than Sidi of course, as you can hear. Wax nañ be um, he wants to talk about it pour def research, pour get himself ready, pour prepare himself. Whatever the cases, comme li ma wax gannaaw rek information is very hard to get in the Gambia. biñ fi try na three different officials in three different capacities none of who can give me information yet Gambian journalists nekkuñ di try suñ responsibility suñ rôle is just to reach out to people of course wax naag man ci njekk ak teraanga wax naag man ne ma respect position am as a public figure he doesn't want to be an informer dinaa yónni tiim bi foofu as early as tomorrow ñu set moom appointment pour ñu vérifier loolu pour ñu xam lan la luwaay réew mi wax ci affaire yi ndax ku saaga président wala public officer ndax loolu luwaa la ci réew mi ndax mu ngi ci réew mi ba tey ndax nekkut ci réew mi comme ni ma leen ko waxee the last time I check bu ma fàttale ko loolu luwaa boo xam ne pass nañ ko 2013 2014 Gambia we have a long way to go we have a long way to go sax bu dee guñ suñ dëkk bi bu dee koo guñ dégg ngeen the arrogance in which Sidi spoke and hung up the phone on me twice and kooku moo nekkoon the information minister of the country for a couple of days during the political impasse kooku moo yàgga nekk a national assembly member kooku moo yàggaa nekka am parliamentarian duñ daw duñ xaaddi we will try to reach information nuñ ko mun a amee we reach out to other people yeneen national assembly members or people that can give us information kon ñu déglu laala ma jéem a jokk ñeneen pour leeral rek moo ñu tax a jóg pour askan bi xam xàmmee ràññee ñu jànga jàngalaay woote let's go ahead ñu déglu laala ak poemam bi new content. A journey that cost most of them is victory. See, people say that this is the same country that bore the pain her children suffered in vain with their hands and legs bound by the chains that enslaved them, fought her way through the dark era of colonialism, held on farm, and hoped for better days during those hard trying times when she was ruled by a dictator, a man who took over her, terrorized her children and left them in pieces from which they're still trying to recover. People say that Gambia is a peaceful place with an amazing culture. A nation so nice with a beautiful structure that it is home of legends with great legacies, home of icons what praise with the struggles of whom the red, white, blue, white, and green flag was raised. A nation known for its peace, love, and unity, inhabited by people blessed with beautiful smiles of humanity. See, I am not denying any of that, but see, Gambia, Gambia is not everything people say it is. Do you know? Do you know that in the Gambia, corruption resides in the hearts of leaders? A place where politicians have plastic smiles fixed on their fake faces, other sweet words, and trick people into believing they're nation builders. Instead, instead they're actors and two-faced cheaters. The majority of the young people in the Gambia are currently unemployed, even though they have the results, the degrees, the masters, and all other required papers. Which is why a lot of Gambian youth embark on the risky journey of illegal migration. A journey that costs most of them their lives as they Diop Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi ni lañ koy defee saa su nekk am ñu leen ay bëggee bu baax a baax a baax lu tax Gambia du dem Show la is live am ah, ñu leen ay bëggee bu baax a baax a baax amiin lu du dem Show call us live and direct fii ci Gambian Talents am ah, radio am pour participer képp ku bëgg a participer rek ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax a baax am nañ am ah, caller on the line from the UK ñu ngi leen ay bëggee hello caller yeah hello ñu ngi lay bëggee. Um, yeah man man lu ma bëgg a wax mooy the thing is um, I think we should not be you know encouraging people to be to be swearing and and saying bad things to to to people. You know, I know that my understanding, uh, you know, arresting people, you know, for saying something to, towards the president or a mm -hmm. political figure is not right. Mm -hmm. You know, we know that what the police did is not right, and we see them, you know, posting it like like a journalist and all those kind of stuff. Mm-hmm. We all know that, that that is not right, you know. Mm-hmm. But one thing we need to understand that you know, mm-hmm. you know, the, the, politics that we have in that we experiencing experiencing in the Gambia is very very nasty, and and we should not be entertaining that if we want you know our nation to go forward, you know. Mm-hmm we we should be doing a politics a politics that is encouraging people to come together mm-hmm. and, and and have a debate, have a discussion, mm-hmm. you know, that is really meaningful, meaningful, mm-hmm. mm-hmm. you know, rather than we, you know, sitting there insulting each other, you know, mm-hmm. putting people backwards. That's mm-hmm. that's that, I don't think that's that's that's a good thing, you know. I don't. Uh, uh, to be um, honest, personally, linga wax, fog naa ne soo dégloo sumay kadu ci beginning bi ba tey benn kàddu gi laa nekk wax. I condemn loolu in every form shape or size it doesn't matter ku ko def saagandey xasante ŋàññante tudda ay cëri kilifa is nothing that is right for anybody to do anywhere in the world definitely to d'accord naa Mm-hmm. Yeah, but because man, Buma, Buma Gisele, I was, I was so disturbed. You know, mm-hmm. the, you know, this thing is happening. You know, mm-hmm. still now it's happening. We, um, that we know that you know, even politics is every day. Mm-hmm. You can do politics every day, but it depends how you do your politics. You mm-hmm. know, so at this time of the of the year now, we should not be ñu war ñoo nekk di ŋaañante you know si politique bi you know still mën nañoo def politique de mm-hmm. waaye nañ def politique boo xam ne dafa asi people together mm-hmm. you know ñu ñëw ñu contribute towards national development waaye yow nga taxaw fële you know di day président di day Sino Darboe amul njëriñ you know I absolutely, I absolutely right. Munga pass sub voice opinion in every way, shape, or form. Tedo saga do haste. Exactly, exactly. Wow. Why not Gambian has a respect? You know, why do you see those kind of kind of stuff going on? It's only Gambia that you have this kind of stuff going on. It happens everywhere, sir, but it doesn't justify it. Fu nekk but it doesn't yeah, justify well, it. Like I keep exactly. saying, well, so aduna yep don't def lu wrong, do musa lu wrong, ton nekk lu right by any means exactly, at any that's, point. That's true. Mm -hmm. Yep. No, no, you know, but another thing, you know, um, man like say yange try to call people put in your platform they say share share their view or to clarify things. Mm-hmm. Why it's like they are what's what's going on in Gambia? Mm-hmm. Yo sitting there yanko call, mm-hmm. you know, instead of at least mu your life halif did you know spend uh, this and this and this we all know that information is difficult to have in Gambia because they don't have the technology or they don't have the capacity to go and get information they have to uh, um, get information slowly by slowly we all understand that why there is a way to talk to people when when you are in a certain position mm. you know when they call you to have something from you there are ways that you can deal with absolutely, them Absolutely. absolutely. Yeah, why mm-hmm. nga nekk ring of telephone mm. hmm or mm-hmm. nga nekk di wane yang si yang si party mm -hmm. or some something mm-hmm. like that's not mm -hmm. allowed, that's not done, that's not mm-hmm. professionalism, mm -hmm. you know? jere Jerejef, yeah, appreciate na sa contribution. Wa, jerejef Pasman, yeah. Naka nga tuda akwa kole? Ba, man, man, Bajsam Fall. Bajsam Fall, okay. Yang ekole fan? Angleterre. Angleterre jërëjëf waay baj su ko defee ñu contact gars yi rek dinaa contact kii di Madi Cissé Madi Jobaate moom tamit am um, he's a political analyst um, a human rights activist ci Gambia am um, he knows the constitution and would be able to give us information hopefully kon ñu contact Madi Jobaate jërëjëf baj Samba waay. jërëjëf jërëjëf yéen a ngi déglu di seetaan lu tax gambi du dem show jógee ci Gambian Talents Radio mun ngeen a participate képp ko bëgg a amen participate soo nekkee America 678 608 3322 678 608 3322 ñi si nekk Angleterre 161 818 7077 kon duñ def dara lu dul ñu contact kii di Samadi Jobate hello good um, evening good evening Mr Jobate This is Pa Usman You've calling you from the Gambian Talent Radio. Hello? Yes, hello, Mr. Jobate. Yes. This is Pa Usman You've calling you from Gambian Talent Radio. Uh huh. Yes, yeah? I am oh. calling. Um, we need um, to do some. Um, we are doing some research, actually trying to get information. We are live on air, talking about the arrest of Mr. Um, Omar Toure, and of course, we want to know. Um, some people are in agreement with the arrest, some people are not, and we would like to know if the laws of the Gambia still have this. We remember there was the media bill that get passed. Is that law still in existence? Is there any law that actually warrants or backs the arrest of Mr. Um, uh, uh, uh, Omar Toure? um, of um, Gunjur. That's what we are just calling to get from you. Of course, you being um, uh, um, an activist and of course somebody that is very versed with the Gambian constitution, uh, we say let us reach out to you to see if we can get any help from your side as far as I mean clearing this is concerned. You are live on the radio if you so don't mind. Yeah, I mind. I mean, I, I just can't call me, pick up and tell me I'm on live. I mean, yeah, uh, at this moment, no, I, I, I don't think I can talk on life. Okay. on, on, on an issue, yeah. So uh, I guess best thing would be let me know prior before you talk to me, so uh, you know get my consent to be on live or not. Mm-hmm. Uh, well, um, yeah. for the sake of what we do, I will respect that if you don't want to be um, on. We do this show live every Sunday, and um, uh, I think we can call and ask. You have the responsibility or the um, mandate um, to actually decline our I mean thing. I that's why I told you I did not just call and tell you and start talking to you. I have informed you, and I think that is what is required of me to inform you that I am putting you live. You can decline it, or no. um, you can talk to me if you no, so desire. No, no, Powers, you didn't inform me. You, mm-hmm. you just called me on live and want to talk to me on live. But informing I have... would have been to call me before um, now. I mean, you know, an hour before, a day before, or so that on this day and time we will call you to be on on uh, live. So then I, I would know we're expecting your call. But I mean, just calling me now and telling me I'm on live that that's not uh, information. That's not a uh, request. Well, it is. I that's mean, I don't. I, I, uh, yeah, I don't have to request. I am just required to inform you when I do it. If I am recording you, if I am putting you live, I can ask you. Anyway, as according to the ethics of our job, which I know I am very privy to, I can call you live and tell you. If you don't want to talk, I can respect it and let you go. But I can tell you that, I mean, from the ethical perspective, I have not done anything wrong and I can actually respect your no, no, opinion no, to not talk to, me if you don't want to. I'm a, I'm a, I'm a journalist. mm-hmm. I've been on broadcasting mm-hmm. for long. Mm-hmm. And I'm telling you, this is unethical. Uh, well, I from what I know, I I, I, I, I, don't think it's unethical. But anyway, I respect your I mean thing and get back to work. I mean, thank you very much. I appreciate you talking to me. Right. All right. All right. Thank you very much. Uh huh. I mean pour leeral loolu rek uh, ma wax I have this problem again still we are not able to get information from Madi it's very um, uh, unfortunate but pour wax and you can go and check it yéen ñi nga xam ne déglu sax yéen ñi nga xam you hear these things happening all the time you listen to BBC you listen to Al Jazeera you listen to CNN you hear them making calls to the offices of the um, um, uh, different officials asking them information we can always call as long as I inform you when it is happening. I am not definitely required to call you prior pour yegal la te lolu yep si ñaka xam gi la boka man lima xam xam na ko and I know I am not doing anything wrong to inform him as long as wax ne mang la def live rek I am am um, uh, uh, uh, excuse and and and I am I have done li nga xam ne moom laa war a def kon dégg ngeen ki nga xam ne mooy Madi Jobaate moom tamit li mu wax um, he wants to be informed in advance. tey Gambia we will continue to reach out to somebody else su ko defee ma call ki nga xam ne mooy Madi Ceesay moom National Assembly member la um, for Serekunda moom tamit under the UDP ticket dinañ call Madi Ceesay moom tamit suñ dawut duñ xaar di ñu continuer rek Getting information, that's the fourth or fifth person we have called in Gambia, and nobody is able to give us information yet. People want to be informed, people want to prepare themselves. I mean, and it just gets me um, uh, wondering. suñ we have a long way to go like seriously a very very long way to go his only um, thing is he wants to be informed in advance You contact Madi Ceesay rek to see what he is going to see. Hello? Hello, good evening. Hello? Yes, good evening. Good evening. Is that Honorable Sise? Good evening. Speaking. Yes, this is Pa Usman You've calling you from the Gambian Talent Radio. All right. Yes, we are calling um, uh, to verify some information um, of course, uh, recently there has been a video circulating on social media about Mr. Omar Ture, um, who was arrested by the police. Um, and, and from the video, it is um, uh, said that his arrest is in relation to him insulting and cursing out President Adama Barrow as well as, I mean, um, uh, the UDP party leader, Lawyer Useno Dabo. As a National Assembly member, we are calling to ask some information as far as whether there is any law um, in the constitution of the Gambia that, of course, warrant for such arrest to take place. Um, uh, what would you think is the arrest, arrest just based on the police using their discretion to do it, or was it actually a lawful arrest? And that is what we are calling you for, and you are, of course, live on the radio if you so don't mind. I do not mind to comment. I can, I can comment on anything anytime. Mm-hmm. Okay. I mean, is there any law? Thank you very much for accepting to talk to us. Um, we are talking to Mr. Madi Cisse, National Assembly member for Serekunda under the UDP ticket. Mr. Cisse. um, so what can you tell us um, about the laws of the Gambia? Is there any law that um, talks about somebody um, uh, who insults or costs the president or any public official to be arrested? Well, in the first place, I want to make it very clear that I am not a lawyer by profession. Mm-hmm. So issues of law, I have to take my time and make reference to the Constitution I will refer to the Constitution. Mm-hmm. I have not uh, mastered the Constitution mm-hmm. from page one to last page. Mm-hmm. But uh, the little that I have gone through, mm-hmm. I have not seen. I'm not saying it is not there, but I have not seen. You have not seen any but, law. Uh, I know also morally mm-hmm. I know also morally it's not accepted to insult, because insulting is a form of provocation. Mm-hmm. That for sure I know. Mm-hmm. Yes, for sure, we have talked about that and we have condemned it in every shape, form, or size for anybody to cause any somebody else, even if it is not our leaders. Even a parent should not be cussing their kids, let alone, I mean, um, somebody cussing the leader, the number one um, citizen of the country. It's wrong in every shape or form. But um, what we are trying to verify is there any law. Now that um, we will respect the fact that you are not, um, you don't master the constitution of the Gambia, um, you don't know it by heart, uh, but as a lawmaker, what can you tell us, a lawmaker that is there representing the people of the Gambia, responsible for making laws? I mean, mm-hmm. constitutional reform is definitely what we expect and what we want. Um, how far have you guys gone as far as the constitutional reform are concerned? The reform has been a demand by the National Assembly members in our series of meetings we had since we took oath of office. Mm-hmm. The mandate Minister of this, and uh, as far as I know, mm-hmm. a committee is already in place. So the review, uh, the constitutional review committee is set up. Uh, I can tell you that. And uh, in the review, every Gambian will have an opportunity to put his or her input on the constitution. And uh, what I can tell you is it is on the move. There is no doubt about uh, the review of the entire constitution because we have some clause in the constitution which are really uh, not acceptable. Therefore, it is uh, fitting for us to review the entire constitution and write a new constitution for Gambia. That uh, said and done would take minimum at least of 100 one year, six months to complete. So Gambians, I'm sure in the next uh, one and a half year time or two years time, will have a new constitution. We'll have a new constitution in one year, six months to two years time, according to Mr. Um, um, uh, uh Mr. Um, Cisse. I'm um, taking you back a little bit, um, uh, uh a little bit back. Um, like I said, in 2013 or 14, a media bill was passed in the Gambia, and I think one of the provisions of that bill was for public officials, like if anybody is to libel, um, uh, uh, libel or slander or say anything um, of such to public officials, they can get in trouble with the law. Um, if you, if this is information you are not privy to, is there any way you can find that out for us? whether there is a, a, law of libel. I know there is a law of libel that exists. Yes, there has been. there, ha, there has been. I'm talking about when the media bill was passed in 2013 or 14. I mean, it talked about public officials mm-hmm. being, I mean, caricatured, being um, um, defamed, and of course, um, uh, spoken to in any um, uh, uh, way, such as what um, Mr. Ture did. Um, that's what I am asking. Is that something mm-hmm. that you will be able to look into? I mean, and, and if so, if something like that still exists, I remember when it was passed, um, we criticized it a lot and, and asked for uh, public um, uh, uh, uh and asked for democracy. Of course, where where does the democracy stand if people cannot express themselves? Of course, not to be cussing people out or cussing our leaders out, but um, that was very vague and open. So, is that something you can look into? Uh, very well. I, I, know when we come to write the new constitution where every Gambian will have an opportunity to participate, <clears throat> we'll have a clause of those kinds which will really not be um, big. Uh, we would, I know every Gambian would not like, uh, would like everybody to have his uh, views expressed freely, but uh, we also are cognizant of the fact that uh, where your rights stop, that's where the other person's rights start. So I think when we write the new constitution, when I say we, I mean Gambians, mm-hmm. we will come up with a very good constitution so that uh, everybody will have a room to participate freely. Mm-hmm. Freedom of expression is uh, key in every national development, mm-hmm. but uh, how it is also handled is left to individuals. So the law is always there to guide people so that you can express your views and um, as you want to, but that you also be mindful, not really leading into inclusion of other people's rights or inciting violence, things like that. So those are things that uh, I'm sure when we consumers are to be care down. But it will not be like a blank one that is passed in 2014 or 2013. I then was actively and still actively uh, participating in, in, in, the media. media. Mm-hmm. Those are things that we have condemned, mm-hmm. and we will still stand by that. Stand so we want it. a constitution that people can express their views mm-hmm. independently. Um, well, my last question to you before I let you go, Mr. Sisi, I know um, it's um, time in um, it's Ndogu time in Gambia. It will have to do with um, uh, uh, selective justice. There are people who are insinuating that it is um, uh, selective justice is going on because during the mayoral election, we saw the Sarahule lady that cussed out um, uh, the whole tribe, um, Sarahule tribe. And before that, we have had audios. Um, even one was shared with me earlier today um, in which somebody was threatening um, President Adam Abaro, um, saying that if he is to have problem or do anything with lawyer Usain Babo or fall apart with him, that they will chop him off and the like. So, and threats have been made too, I mean, to the APRC leadership earlier um, during the mayoral campaign campaign um, by uh, members from different parties, especially um, UDP and people from APRC. Basically, people have been talking, but nobody seems to have been arrested. On social media, we see people cussing out leaders of different parties. So some are wondering why this time around is selective justice going on. Do you believe that selective justice is what is taking its course here? I, I would outrightly condemn selective justice. Justice is for everybody if I if I come if I'm wanted by law, mm-hmm. I think the law should just take this course, mm-hmm. no matter who I am. Mm-hmm. So selective justice is not justice. Uh, that's something that I will condemn outright. Mm-hmm. But uh, really, what I what you said, you are right. We have seen a lot of things happening in social media in the Gambia. These are things I think Gambia is really, of course, there's a changing system. You know, these kind of things were not happening before because we had a dictatorship. Mm-hmm. So now that there is democracy in the country, I think people also should act responsibly. Um, people can express their, their views because I express my views all the time in my newspaper, in the parliament. So why not? <laughs> Everybody should also express their views and uh, positions in any way they do it. But then people should do it responsibly. Mm-hmm. I think caricaturing one another, you know, these things, I think, if I want to sum it up, it's really like uh, it can develop into what is called a hate speech. Mm-hmm. And when there are hate speech in a country, mm-hmm. that can really lead to violence. I think we should all be responsible, all be um, uh, cognizant of that, so mm-hmm. that uh, Gambians, wherever we are, take it more responsibly, express our views responsibly, so that we can have a nation that everybody can exist in the world. Mm-hmm. Mr. Cisse, I'm, mm-hmm. I must say I am very impressed and proud of you, by the way, for your professionalism, demeanor, comportment, and stuff. You are the fifth person I have called since the beginning of the show, over one hour, 30 minutes ago. And you are the first person I almost got held of everybody, hold of everybody, but you are the first person who had actually spoken to me and did not decline and asked me to call back or oh, do this or do that. And of course, you have spoken very well, I mean, openly and confidently. And I have done this, I have said this. You, the National Assembly members, the current National Assembly members of the Gambia, I give you guys kudos for standing up for the Gambian people and, and, and, and, and have encouraged Gambians to actually give you guys chance simply because you have been standing up. What we have been seeing in the past is um uh, uh, uh, uh what you call it is is rubber stamp National Assembly Assembly, you being, of course, from UDP, and of course, having your party leader and, and, and, and uh, several other members of the UDP in the current coalition government, one would have assumed that you will definitely be able to take side or I'm kind of trying to justify anything that has to do with the party. But from you just even condemning selective justice here and all of these things and be able to openly talk without fear or favor definitely shows some professionalism in you. And I just want to acknowledge that and encourage you to continue representing the Gambian people as you are doing. So thank you very much. Your last words to our listeners. You're most welcome. I will continue to do that. Um, I'm voted in by the people and for the people, so therefore I'll stand by the people until the end of my tenure in the office in the National Assembly. Thank you so much. Thank you very much. Yes, that is um, Honorable Madi Sise, National Assembly member for Serekunda, who of course stood under the UDP ticket. dégg ngeen li nga xam ne moom laa waxtaan ak moom pour tënk ko si olof rek laaj naa ko correction si affaire constitution bi ndax am na benn provision si constitution bu wane ne kat am euh, képp ku saaga président war nañ laa mun a jàpp mu ne moom kat euh, maxaamaam bi am lim jot a xam si constitution bi ci biir xelam moom kat am cramut euh, constitution bi 100 percent waaye kat. kenn warta toog di saaga njiit ci bépp anam ku ko munti defi tamit li nga def du right ma laaj ko affaire yi selective justice li nga ko mujjee laaj mooy ndax dëgg la pour ñu war a toog ne ñii saaga nañ président bi ñii saaga nañ Fabakary Tombong Jatta ñii saaga nañ Halifa Sallah ñii saaga nañ Kele waaye ñoo ñu def saaga yooyu yëpp jàppuñ si kenn kii saaga président Adama Barrow ñu jàpp ko mu ne selective justice mooy ne tànn ak parparloo ak kan la ñoo jàpp kañ lañ dut jàpp kañ la ñoo arrest moom d'accordul ci loolu tey d'accordul ci ëllëg te képp a kuy def selective justice warut koo def ne ñu ngi jógee ci dictatorship muy nguur goo xam ne kat nguur gi fi nekkoon ak nga xam ne nit ñi ñemeñu woon a wax ñemeñu ñoo def yenn yi waaye képp ku def lu rong rek dañ ko war a jàpp waruñoo jox wecci luwaay réew mi am fan lañ ci toll mu ne loolu kat process la ñu ngi ci kawam ñu ngi cee góorgóorlu ñu ngi cee dox di ci waxtu bu nekk mu ne loolu kat process bi dina jël am attaque genn wàlla wala be ñaari at so te dinañ ci boole gambien ci yëpp seen xalaat ak seen gis-gis ak seen pas-pas loolu mooy li nga xam ne dinañ ko def kooku mooy Madi Ceesay ma nekko ko ne kat maa ngi koo di ko sant ndax gis ngeen ne bi programme bi dooree ba tey maa ngi di jéem a jokkoo suñuy kilifa di jéem a jokk suñuy nit di jéem a jokk ñi nga xam ne kat ñoo ame kàddu réew mi pour ñu wax waaye kenn si ñoom nanguta wax ak man lu dul moom mi nga xam ne mooy Madi Ceesay mi kon ñu ngi koy gàcce ngàllaamal yu mel ni lañ gis public official public official nga at any point you should be reachable and pour fàttali leen media bi nii duñ benn permission from them pour contact len ñom public official si, su dara xewé lo xamné ne war nyong soxla seen amin am kàddu ci lolu wéda ñom d'accord nañ ci o d'accordu ci pare nañ pour wax ak ñun oo note ñun suñu responsibility rek moy ñu xamal len né kat ñu ngi def live des na ci yow pour nga pare pour wax wala ñaka paré yow forom su la ko amin so paré pour wax so paré lulu waxit lolu it's fine amin way ñu continuer rek kon mari some of your comments ñu ngi leen ay bégé yeen ñi nga xamné ne ay déglu King khalilullah mu beautiful poem mu ne hard fact do jenga Mohammed those are just words now but uh, not a practice uh, Mustafa Justice Mune very uh, true caller jenga Mohammed caller the African leaders themselves should know as from now they are just servants to their people muy dégg bu wer leaders yep, njiit yep war na ñoo ne jamono ji nit ñi ñoleen fa tek te ñom nit ñi lañuy ñuy liggéeyal ci gàttal nit ñi ñoleen fa tek te képp kuy liggéeyal am nit nga war a def kooku lim bugga as long as lim la santa mu ngi méngoog liggéey bi mu la santa muy réew mi Ama Touré mu ne paos how about next time when you having program you inform them before you having your program you know Africans how it goes people <laughs> afraid to give information because of the system we've been surrounded so next time inform them uh, well before jërëjëf for the feedback that can work mun naa nekka waaye is not a requirement ni ko gaay di waxee noonu comme ni ko Madi Jobaate waxee noonu is not a requirement mun nga leen a call at any time suñ available ut available in the first place waaye pick up the phone su dee available loo waaye loo xam ne dafa méngoog sa liggéey rawatina nga nekk borom kàddu koo xam ne yaa amee kàddu particular institution place wala ay nit képp si yéen ku bugg a jël responsibility of PRO responsibility of ku amee kàddu of any institution ba si seen daayra yi ba si seen organisation si Gambian organisation si mbootaay dëkk yeeg lu nekk family eh, am eh, association si képp kuy jël position of responsibility xamal ne sa rôle mooy nga jéem a xam ñi nga represent ak place bi nga represent nga xam ko di in and out biir ak biti bi of li nga represent ba pare ñaareel nga pare pour joxe information Bobo, on behalf of that institution anytime you are called upon So, demee ba yow parewuloo pour def loolu rek please bul jël place boobu bul jël place boobu kon Moustapha mu ne PAOs they are doing it every day in the Gambia at this right moment audios are all over the place ninenye gesia odius oh um, uh, lolitlu amla jenga kajenga mohamune leaders are getting insult all over the world due to their behaviors nyinyinge saga kilifai funeka waye saga yuyu taxon mu nekk right de don doon def lu bon du mosa tax lu bon neka raid ci ñëpp su doon def raid du tax raid nekk rong te mënu loy feyee koo mbon that's the bottom line mënu ñoo feyee bon mbon Paos, what's the number to call in the UK? Lola King Halilulai Wah. um, number B is 16181870777 maa ngi pin number si foofu noonu 16181870777 um, uh, Lolo mooy number B to dial from the UK America 678608332 678608332 um, Sweden 8559 085592661 jenga mo Jenga ne this is what is the problem in the Gambia people took themselves to be better um, um, it is a wild TV or radio, he will if it is a white TV or radio, he will jump on it. waaw muy dëgg bu wér su leen BBC kooloon su loon CNN kooloon su leen Al Jazeera kooloon dinañ dem uyute loolu mooy jikko roy loolu mooy jikko sàmba alaar ba tey si selective justice gi ñoo wax even Senegalese channel si boppam ndax am nañ ay people that we saw ñoo xam ne contact nañ leen a lot of times ci time election bi they will not grant Gambian media houses interviews ba si suñ président yi réew mi si boppam every six months laa wax ak taskati xibaar yi ci réew mi every six months laa wax ak amin journalist yi si réew mi but guess what international media bi ñu ngi reach out to them de occasionally in between those six months and they do talk to them to Jenga Moha. Thank you for bringing that up. Munepa, leave him alone. He's a wolf in a sheep clothing. Uh, I don't know who he is referring to. That is the wolf in a sheep clothing. Gambia, you root ko. Uh, mune Gambia, you root Lulawa. Musa Vero Diba Mune, you are not doing anything wrong, Pa Usman. They are all two faces, Pa Usman Cha Mune, haha. A full National Assembly member claiming not to know the law he designed um, debated and voted to uh, review to suit the people he represents. Uh, kooku mooy Pa Ousmane Cham mu ngi question Madi foofu noonu for not knowing the constitution of the Gambia by heart uh, <laughs> Mustapha Justice mu ne very true brother Madi um, mu very true honorable Madi um, Lamin Seydi Kane respect to this honorable he is um, bold honest with his opinion and respectful. Uh, really proud of him. Uh, thank you very much, um, uh, Lamin Seidi. Mustafa Justice Munepaos, I really respect this man, honestly. i uh, uh, honorable la moo wax ndax xaw ma respect uh, mu this honorable MP is a honest person. I really respect him. He is very, I respect him very much. Paos, send his regard, my regards to him. Mui the Honorable Madi Sise of the UDP. Uh, we have to give it to him, and a lot of them, they have been standing up. you will expect ne lepalo loo ne dafa jógee I have seen National Assembly members for UDP confronting the Minister of Finance Amadou Sane I have seen them confronting their party leader when they were called pour ñu dem defi li ñoo def pour si National Assembly bi kon lo lu am solo la pour ñu bay xel naa pour tënk waji, gi ni ci affaire yi ah, waa muy Touré ci commencement bi is wrong pour mom mu def lim def saga président and of course it should be lesson learned for anybody and everybody pour ngeen xam comme ni mako ko verify vérifying ko waye loi yi réew mi dafa taxawal pour bu saga, saaga wala wala khas not only the president but public officials for that matter te fi loi bobu mu fa be tay police am nañ raati arrest la te so deme court ñu am evidence na yow def nga lolu mun nga ci deme jeel yow mi déglu nak na nga xam lolu yow mi nek social media di saga di xaste di wax naka sudul nono na nga xam lolu nga xamé ràññee kon ñu ngi lay nay bu bah. baaxa baax yen ñi nga xamne yen ñuy déglu yen ñi nga xamne yen nekk di contribute yen ñi nga xamne yen nekk di participate di leen wax ne ngeen jappalé Gambian Talent Promotion amin gis ngeen ne calls yi ni they are very expensive about fifty dollars lañ spend pour jënda dis credit pour mëna call gaay pour pour leen on the line pour ngeen dégg direct line lañ leen call dégg ngeen bu seen téléphone yi di génn ñom ñëpp that is very expensive information is expensive and it's hard to get gis ngeen di ñay ñu call ko mu up ñu colaat mu up ñu colaat mu up kon jappalé leen ñu by contributing to us finance especially su ngeen ñu donate amin lu waay am rek xeebuñ ko yéen ñi ñuy seetaan saa su nekk ku ñu donate amin one dollar one pound one euro one penny lu waay munti am rek xeebuñ dara amin gannaaw doo rek saaga su ngeen ñu donate incha allah dinañu help ku si nekk Angleterre ñu ngi am account number foofu noonu xam ne di nga fa mun a déposit amin dugal xaalis soo ñu contacté dinañ la ko jox ku ci nekk Sweden the same thing America wala fu ngeen munti ma just post foofu noonu you click on the link you can Digital is very easy and simple I mean and it's very secure mun ngeen ñoo contact yi tamit ngeen donate through suñ GoFundMe account bi wala boog ngeen yónneel ñu ko Gambia ndax team bi ci Gambia dégg ngeen ma ne dinañ yónni pour gars yi dem am follow up with some of these people ñoom tamit seen dépasse seen am transportation seen salary ak all the things that we need to pay them it's very expensive ñoom tamit pour ñu maintain loolu crédit beeg yooyu noonu so pour ngeen jàppale ñu loolu dina am solo bu baax a baax Ah, ñu mën a continuer ma read some of the comments rek um, French Montana mu ne what's the reason for the change if we can't criticize the president dëgg bu wér we should be able to criticize the president but with respect but with respect respect lu am solo la te Mr Touré maa kiiku amaa Warna respect president in every shape form or size Mustafa Justice mu ne Paos but is jamme law uh, that they all condemn before so why now well jamme mo fa defon loi bobu nonu but the bottom line is the law is still there the law is still there li fane kon ci time jamme mu fa ba so until and unless new wecci loi bi loi la de Of course, I know some people will argue ne an unjust law is no law. What is there? te am nañ fuñ sukkandikoo so su fekkee ne bugga ngeen loolu commencé leen di engage seen national assembly members yi kool leen seen nit ñi yéen ñi nekk bitim réew seen ni ñi nekk Gambia ngeen wax ak ñoom educate leen wax leen ñu ote meeting ñu oo seen national assembly members yi ñi leen a represent seen député yi waxtaan ak ñoom wax leen ne dañ bugg ñu gaawal process bi ndax yena a ngi dégg li Madi Cissé wax in the next two years moo miin ne élection jotaat na dina saf de moo miin ne jotaat na ci réew mi and we know what that means suñ ko passé time bobo. we know what that means pressure them out of everything they do na ko prioritize French Montana Mune, forget about the respect, bro. As long as he is a public official, he must be criticized. That's your opinion. Respect nako. Comme ni ma ko waxee rek ñu respectante opinions. Mun na moo criticize waaye the last time I checked though baax ak yaru moom lum la mayut rek du la ko xañ baax ak yaru lum la mayut du la ko xañ réew ak ñàkk kersa lum la xañut du la ko may rew ak ñàkk kersa lum la xañut du la ko may and what is not right is not right and will never be right it doesn't matter who does it plus two wrongs can never make right kon ñu ngi leen ay bëggee di len dalal ci lutax gambe du dem show ni lañ koy defé sa su nek rek ñu continuer ak yeen pour dugg si second part of the show gannaaw bi nga xamé ne wax nañ len Mr Touré lim def ak japp gi nga xamné police japp nañ ko is wrong for them to arrest him ñom tamit pour japp ko di ko interrogate nono, especially di ko laaj questions ci ñu ko don laaj that is the NIA style and lulu is wrong for the police to do is wrong ndax pabakari Tombong jaata mo la yoni nda am naka lum la defal lan la la def lan lu wrong la Adama def the type of questions they were asking him I don't think they should have gone that far kan moo leen yónni tamit who were they acting on Plus, everywhere else in the world, the police can record conversations. The police can um, record arrest, send operations to protect themselves and everything. Because so far dara xewoon ñu accuse them of ne dañ def lii dañ def lee saa su nekk ñu west they should be able to have some evidences to fall back on Lo xam ne fa la dem seet ne ok lila mom moom su ñëwoon toog ne dañ ma toocoo dañ toj suma benn bët bi wala mu dem bo boppam ñëw ne ya ko gaañ li lañ ma def léeg lañ ma def su boobaa ñu am evidence but this should be kept and should only be exposed on a need to know basis in a court of law or through other means through other means of course, agree now with Pa Usman Chambim Kole, he was talking under duress. He was talking under duress. because gis ngeen niñ ko confisé su demee ba apologize ñu ñëwaat laajaat ko yëfi audio bi déglu nga sa audio bi dégg nga li nga si wax danga saaga président bi mu ne saagawu ma ko directly ñu ñëwaat saga ako saga umako that back and forward did happen three four five times during the audio it's a three minutes audio three minutes video but back and forward bobu nono up to five times wax na fane saga na president bi mu ñëwaat sagut president bi sagut ko directly ñu press ko mu ne waaw actually moo moli def le. am new ko jima compare and man suma boppa bi mako of course it reminded me of how uh, Amadou Sane was being interrogated dañ ko forcer mu wax And yes, he did apologize. He did take responsibility and own up to his mistake. Mu wax ne kat beneen yoone du ko defaat. Even si wes bi. soo mégee mistake nga jël offense nga plead guilty of the offense dang dee mun a am leeway dang dee mun a am some form of relief rawatina su fekkee ne is your first offense pour gars confis ko non di dem back and forth ak mom di ko di duga ci am affaire yi am am am am lan la président baro def lu wrong betah tax mu ko saga citizen la su gisee ne président bi ni mo wax ni mo doxalee réew mi neexut ko war nako koo wax waye ma bamtuwaatal leen ne na ko wax ci jek ak teranga bu ko oyé ay tur ay mbam bu ñuul ak fenkat ak yenen yu mu wax du président bi waxee loo xam ne du dëgga te moom mu óor ko ne loolu du dëgga mun na moo génn mu joxe évidence am back point am wax lim bugg a wax lim bugg a wax waaye dinaa leen bamtuwaatal ne ci njekk ak teranga ci njekk ak teraanga Mustafa Justice Munepa Os then you wanna tell us those who uh, were arrested but Jame arrested where uh, the arrested Jame was doing was right tell all that uh, those arrests that Jame has uh, done, done is right mu arrest ya Jame don't death is right well it's in the constitution comme ni malen ko waxee mung si constitution bi su do do right nañ leen ko xeex ñu génnee ko ci constitution bi fee mu fa rekk luwa la te kenn si àdduna bi munut see def dara luwa la luwa la kon nañ leen bàyyi xel loolu nañ leen bàyyi xel loolu Gambia dafa ndaw na xariwut a defar suñ xam-xam yi moo ute suñ xam-xam moo ndaw xam-xam lañ war a sàkku ñun foofu lañ war a góorlu foofu lañ war a rely on luwaa luwaa la de te luwaa bi mu ngi fa luwaa bi mu fa suñ demee ba wécci ko nag even though luwaa bu bon la but still luwaa la te ñan ñoo ko fa teg suñ national assembly members si moo tax ma delluwaat back to the drawing board ne leen dañ war a xam mooy député yi nga xam ne ñoo toog si réew mi ñun ñoo leen tànna gambien si ñoo dem si pool si ñu votal len, dañ len votal during that time APRC National Assembly member si fa nekkoon ñoom ñoo defar loi yi yu si bari suko ko yaaya jemme suko su ko nguur yaaya jemme inde su ko lifin inde, ñu d'accord si lu nguur gi indi ñu ne yes wax naa ne len amna National Assembly member si bari yu fa nekk ñoo xam they condemn some of the things laag bu ministre Amadou Sané ñëwé indi amin de de de de de de de de xaalis bi ñu doon wara jëlé China pour ñu defar fiber optique ci réew mi ñu bari dañ ko challenge ci lolu be tax mu xawa mer mer fa la xëccoo ma Khalifa Sall jogé won be speaker bi sen Khalifa Sall out of the parliament li fatelé na len ko two weeks ago about two months ago la lolu happen so kon ñu bàyyi xel national assembly member si elek gis nga so elege national assembly member ya ngi jox ko ko yaa ngi ko tiral so elege president yaa ko jox kàddu yaa ko tiral so elege am am am am am mayor yaa ko jox kàddu yaa ko tiral so elege am councilor yaa ko jox kàddu yaa ko tiral ne ñun kat olu nañ la so koku yéen de na ko xool tànn na ko ba mu ne mom ngeen jël pour ngeen tek ko fofu pour mu defar ay loi pour pour mu doxal rew mi doxal nguur gi mom president bi mayor bi ngeen ko city bi kat baye nañ ko sa loxo ñoo kansiloo si bàyyi nañ ko seen loxo ngeen seet num gën rek ngeen doxalee ko noonu in short so élégee nit loolu nga ko nekk di wax ne ko bàyyi nañ ko sa loxo seetal num gën a nañ la respect nañ la gom nañ la ne li ngaa def suñ interest la nekka gom nañ ne doo def dara lu ñoo lor kon bàyyi nañ ko sa loxo kon National Assembly members yi nga xam ñoo defar loi yooyu Gambian people bi ñoo leen fa tek dañ dem si gox yi ñu taxaw élection campagne am yenn parti yi taxaw yeneen parti yi taxawuñ ñoom ñu wiin ñu toog kon yéen yéen a leen óolu teg leen foofu ñi fa nekk ni jamono ji yéen leen olu teg leen fa over 30 of the seats occupied by UDP ay ñoom GDC ak ñoom doy ak ñi am ay 5 seats 4 seats APRC ak ñoom seen i am independent to over half of the votes uh, uh, of the National Assembly election. Over 30, uh, 30 seats, the 50 something seats then am. UDP ñoo ko occupy. So today, UDP National Assembly members they dañoo talk. Luabu bu président in the new ratify just because seen Party la jógee luwa bu Adama Barrow indi ñu eh, am eh, vote ko in favor of it luwa bu Ousainou Darboe indi vote in favor of it luwa bu Amadou Sané indi ñu vote in favor of it ñun ñoo fa teg de luwa still whether luwa bu baax la or not moo tax bi Gambien si yëpp demee ba xam ne establishon declaring the country eh, to be an state of emergency si time political impasse bi pour ñu déclarer réew mi political naka state of emergency was very wrong to do national assembly mi seen boppa xam nañ ko waaye seen interest ak interest Yaya Jammeh lañ doon toppa si jamono jooju mais bi tekku na leen de we not sure ndax Yaya dina demam du dem ak su demut fitna gi leen mun a dal ak li leen mun a tegu buñ leen lifinee I remember calling all those national assembly members and asking them APRC national assembly members ne a ngi war a dem debate lii na ngeen xam ne president's command go ngeen dem di vote pour declare réew state of emergency pour muna extend time yaaya jamme for the next three months yena a def li ngeen xamne ne ko pour yaaya jamme mun a toog consolidateaat bopam defaraat bopam ak togayam manalen yaaya dafa dem lum yaga yaga. yena ak niti gambien yena na fee i remember call ñu bari ci ñom kerek nothing less than 10 national assembly APRC national assembly members across the country pour ñaax len pour gaay xàmmee ko xamé ranye. but guy dégg fa naaw loolu gumbo teex lu decide pour vote loolu in ñu extend term bi déclare dëkk bi state of emergency te amuñ woon benn state of emergency def nañ lu nekk génne soldat yi si mbedd mi intimidate dëkk bi pour citizens si génna ñu ne dañ génna di riot dañ génna ñu rey leen citizens si di naan ataaya soldat yooyu di dem foofu ñuy jël ataaya di leen jox di leen oo ñuy añ si seen kër yi di def ak ñoom am ak soldat yi jàmm ak salaam so to declare the country state of emergency ana ñu tay réccu nañ lolu bu baax kon these are things yo xamne dañ ko wara bayyi xel people these are things yo xamne dañ ko wara bayyi xel ne lu way def bopam su guddee fan fekkee te lu way rendi sa loxo lay nàcc kon national assembly mbas fa nek léegi we definitely have to give them kudos dégg ngeen ma di siise su doon keneen as soon as I call him mu commencé di defend di arrest di defend yefi waaye li mu wax moom dëgg ne kenn warta saaga kenn sa doom sax waruloo koo saaga waxuma laa njiit loolu dëgg la waaye condemn na selective justice ak yu bari yoo xam ne ñu ngi koo war a jiiñ nguur gi kon duñ def dara loolu ñu continuer read seen comments yi rek su ko defee ñu continuer I mean um, uh, French uh, Montana mu ne this government is following the footsteps of Yahya Jammeh Uh, uh, no man should blame Jammeh den mu ne kenn warta blame Yaya Jammeh no man should blame Yaya Jammeh ndax luwaa yi si National Assembly members si ñoo ko fa teg dañ ko indi ñu wax ko people voted in uh, justice mu ne Paos then you wanna tell Uh, all those who, who, were arrested during Germany, it's right, Lord on Nako, uh, Mustafa Josimone Paos, they should change those laws. Um, it's the same law that killed Solo Sandeng, but this so called government didn't do that. They just went for the age limit. the same laws. The same laws. Then what we wicked why. So, juggling. ngeen lagga ngeen toppa seen National Assembly members yi tong-tongal leen dañ fa nekk pour yéen xam leen ne yéen a leen fa teg call leen seen family members yi nekk Gambia ngeen educate leen wax leen ñu engage National Assembly members yi si gox gi lañ dëkka fi ñu dëkka si kaabilo bi ñoom rek ñoo ñu mun a sowe ñoom rek ñoo mun a jàppale Gambia ñoom rek ñoo mun a def lii by changing the laws kon contact your National Assembly members engage your family on the ground ngeen wax leen lii su xamu leen ko woon ngeen xamal leen ko. Abdullah Somone Paos, many knew about the truth, but they will never condone the uh, immortal, act because of their selfish reasons. Wow. Bopa sa bopa. Suñuy pause rek. French Montana mu ne where is the then speaker he is still in the system waaw ñi nga xam ne ñooy déclaré woon réew mi null and void Abdoulaye Bojang mu ngi ci système bi ba tey ñu bari ñu doon liggéey ci système bi ñu ngi ci ba tey kon that's a very good point French Montana Alaaji Secka Secka mu ne the president is not above the law when president lie he lies period waaw loolu de dëgg la moom fen moom jagut ci kenn te foog naa loolu moom wax naa ko it doesn't matter who does it si beginning bi wax leen ko wax naa leen ko kon nañ leen bàyyi xel yu ni mel ñu ngi leen di leen gërëm di leen sant yéen ñi nga xam ne yéen lutax gambe Gambia du dem please bu len faté ngén jappalé ñu support us by donating to us it's very expensive to make these calls it's very expensive to maintain this platform ñu ngi leen ay di len ñaax PayPal mu ngi fa pour ngén donate ñu GoFundMe mu ngi fa pour ngén donate ñu mun ngén ñuko ko Gambia yeen ñi nga xamné da ngeen a seeni alawaan dara 5 dollars 10 dollars 20 pounds euros I mean 100 lu way am rek ñu jappalé ndax pour ñu mëna maintain liggéey bi waxna len information is very hard to get te is very important pour ñu am uh, impartial journalism pour ñu make sure ñu independent ndax ñu bari mun nañoo ñëw di ñu jéem offer ay stuff why we want to maintain our independence we want to make sure that we are able to give you the uh, correct accurate information by being impartial by being impartial te loolu pour mu nekk foog ngeen jàppale ñu we are not run by any this thing any anybody we are not sponsored by anybody or any institution Yen ni di ñu follow yéen lañ soxla seen dimbal pour ñu maintain platform bi is very expensive to make the calls is very expensive to pay for the internet is very expensive to pay for the gadgets that we are using to be able to do this yéen a ko gis from the microphone to the headphone to the mixers to the computers to um, the cameras, all the different things that you guys are able to use, the software that we are using to be able to go live ni, it's not free. Yep, you know, la kon yung lena nyak ngen diapale nyo. Omar uh, uh, Bon Sidibe, mu ne the case of Omar Toure allegedly insulting head of state is definitely act of indisciplined manner we all condemn it leaders should be respected at all times even you don't agree with his or her politics and the uh, agencies uh, on professional act of um, security personnel conducted in the video is very disappointing because as in intelligent agents after uh, believing that a person has uh, committed an offense um, committed an offense arresting has been then uh, there is no need to intimidate the person in question just build the case, file against the person, let court decide his or her fate. If uh, proven guilty, the need to be to apologize or intimidating his uh, fundamental human rights, security, persons are public mirror. Professionalism is expected from them at all time. Wassalam, keep it up, brother. Dégg bu lim def ku reasonable si ñun war nga ko mëna condemn même ak tour yim use mëna express opinionam. sa su nekk ma wax len ko ivasar kan bi mi witness mané len if you can kill with poison if you can kill with sugar rada why use poison if you can kill with sugar su dé bëgg nga ray nit nga mën ko jox sukur ak nu sukur nexé mu ko macca di ta ko diko di muuñ di smile te fekk yaa ngi koo rey lu tax nga war a use poison nga xam ne dafa weex ci turutam bi dafa nekk di siqat di imat di looju di wuccu why can we learn to dialogue why can we learn to be matured police yi liñ def like he said building a case against him lañ waroon a def yóbbu ko si code bi code bi decide kon ñu ngi leen bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf yéen ñi nga xam ne yéen a nekk di contribuer Samba Mbayaan moom la Pa Ousmane Thiam wax ñu ngi Samba Mbayaan kay daf ñu war ah, ndax it's not easy yombut bu baax a baax kon ñu ngi leen ñu dégluwaat laa la rek su ko defee ñu ñëw dugg ak yéen si second part of the show muy affaire yi fan yi ñu nekk kat ñu ngi gis ne APRC seen leadership bi mu ngi shake Sidi Ndiaye génn na wax kat ne moom ah, dafa support président Adama Barrow 100 percent moom mi nga xam ne moom laa kool si gannaaw dinañ ko ñu laaj ko ndax amin support bi mu support Adama Barrow dinañ ko doon war a laaj kon ndax amin du dégg la ndax du lu déggu li mu wax ne dafa support président Adama Barrow ndax ki nga xam ne mooy am ah, kii nii ah, Fabakary Tombong Jatta dafa si parti bi ndax APRC Fabakary Tombong Jatta mooy njiit li ndax parti bi dafa tas ndax tasut ndax MA ah, ba mi nga xam ne lañ wax ne moo ko jiite moo or not ñu déglu laala rek and we'll be right back don't go anywhere the story behind the freedom of this country is victory see people say that this is the same country that bore pain her children suffered in vain with their hands and legs bound by the chains that enslaved them fought her way through the dark era of colonialism held on firm and hoped for better days during those hard trying times when she was ruled by a dictator a man who took over her, terrorized her children, and left them in pieces from which they are still trying to recover. People say that Gambia is a peaceful place with an amazing culture, a nation so nice with a beautiful structure that it is home of legends with great legacies, home of icons what praise with the struggles of whom the red, white, blue, white, and green flag was raised, a nation known for its peace, love, and unity, inhabited by people blessed with beautiful smiles of humanity. See, I am not denying any of that, but see, Gambia, Gambia, Gambia is not everything people say it is. Do you know? Do you know that in the Gambia, corruption resides in the hearts of leaders? A place where politicians have plastic smiles fixed on their fake faces, other sweet words, and trick people into believing they're nation builders. Instead, instead they're actors and two-faced cheaters. Mm-hmm. The majority of the young people in the Gambia are currently unemployed, even though they have the results, the degrees, the masters, and all other required papers. Which is why a lot of Gambian youth embark on the risky journey of illegal migration, a journey that costs most of them their lives as they drown into that dream Crushing ocean. You see, instead of figuring out solutions to this problem, everybody is busy pointing fingers. The young people, the young people blaming the government for not creating employment opportunities, for not giving them a chance to prove their capabilities, and the government, well, the government blaming the young people for their lack of diligence. Sigambi Bingaji's boy Bujanga by high school and all of a sudden drops out because he can no longer cope with the school system which he believes is too tough. Mutokir, where is I wajuram, wala mudori kampembera. Mora miguram bro nakala fajma ataya And when he's tired of this, he turns to the streets and earns himself a certificate in robbery, theft and drug abuse. Supare nan deka binehud, halis amut chona biyaga na beligi jehud mandal jisa to madara back way. See in this country, everybody dreams to live in luxury, but instead we dwell in never-ending poverty. Do you know why? See, I tell you why. It's because in the Gambia, people don't oppose each other with new ideas or innovations. No, in this country, people compete each other with juju and witchcraft. Nneka Dihole is someone with bad intentions, so do not be surprised that there is still no development in our nation. See, we are blessed with beautiful black skins, but we have hatred and jealousy in the blood flowing through our thickest veins. Just for power, people in this country commit the darkest sin. The Gambia being ages could su anye warudundewo surere, even though more than half of the Gambian populace practices agriculture. In this country, a man can rape an innocent girl, take away her pride in the silence of the night and get away with it because we are so blinded by our culture budget. Lumagana na had this gambe boy, we don't even support our own. Thing I just a promoter who is willing to pay hundreds of thousands of dollars to a foreign artist but is never willing to do the same for his own. For his so Gambian artists will auto show. The number of people you find them you can count and know why Chete is with foreign artists Bunyewe. Kuneka diligently highlights for clothes and tickets, all of that just for show. I mean I know the Gambian music industry has some whack artists who already release crappy songs. Some who are too busy hating and beefing on each other which is totally all wrong. But there are a few good ones who are hardworking and have proven to be strong. So why can we appreciate and support our own? Legi fundi deka bidega New Gambia. Well, I tell you something. There is no New Gambia. There is just a new government ruling over the old corrupt system, a system under which we are all victims. In this so-called New Gambia, everybody writes and says what they want and call it democracy. Well, I don't know if it's just me or everybody else is actually turning democracy. democracy. to the new We know y'all want to make our nation rise, turn it to a country that will take all by surprise. But see, even development comes with a price. We had voted for change once. Who says we can twice? Power of freedom. dégg bu wér yéen a déglu lu tax Gambia du dem show lii moo tax Gambia du dem lii mu wax ci biir song bi yii spoken word bi moo tax ba Gambia du dem Gambia ngaa gis koo xam ne su añee du reer su reeree du ndéewoo even though half of the population practice agriculture and still mun nañoo nekk di ŋàññante di di with a crab in a barrel syndrome we need to watch what we do and say. We have voted for change once. Who said we can twice? With what we are doing, empowering ourselves and empowering you. Ñu xamee ràññee su ko defé dekk bi dina dem kanam su ko defé ñu xamné suñ public official ci ñun ñoleen fa tek they are public servants dañ fa nekk pour liguel askan wi te si waawi askan wi lañ wara dox as long as is in line with the laws of the land kon yéen a ngi déglu lu tax Gambie du dem soo jógee ci Radio ma wax leen ko ci gannaaw ne leen um, APRC fan yi passé ñu ngi gis coow li ne kur kii di Sidi make announcement ne dafa support president Adama Barrow APRC coow laa ngi ne cour jata Tombong Jatta resign resign on ñu ne ñu jël aimé ali uh, Aliou uh, Ba ki nga ne at some point mo moo pa doon um, parliamentary bi mom lañ jël def ko di interim leader of the APRC coow li ne kursi lol nak. so duñ def dara lu dut ñu jokkuwaat Fabakary Tombong Jatta rek pour confirm loolu ñun lañuy ñuy dégga yaa ko fi waxoon he say she say is not something we want get facts te ñu ne nettali si làmmiñi boromam nettali si làmmiñi boromam la gën a jekkee To copy this following ring, press star. I feel inside we can help Hopefully we'll be able to get hold of him. the rest of the crew, and I to I Hopefully we can get hold of him. Sit for the day. No one say what. Hello. Hello. Yes, Waalaikum salam. Sumole. wala bebe jang pa ousmane ka alaji fa bakar tombala ñinin ka pa ousmane aha ah ka felente a felente mhm. baraka bake thank you hello yes hello good evening good evening honorable this is pa usman you've calling you from gambian talents radio once again Gambia Talent. Yes, yes Now, How are you? I'm good, thank you. Um, I had tried to call yes, you yes. earlier, but I know Ibera mm. Sumo break and probably <laughs> you were busy <laughs> doing some Jatra mm-hmm. Kakunda stuff, right? Mm-hmm. uh-huh. Anyway, just trying to um, uh, verify a couple of information news coming out, mm-hmm. spreading on social media about um, your resignation in APRC and um, a new executive being formed and the like. Um, what can you tell us about this? Did you actually resign from the party and uh, and, and, and later uh, get reinstated or took back the responsibility? What can you tell us about this whole thing we are hearing? Yeah, thank you very much. And you, you are li- uh, you are uh, uh, live by the, uh, you are live by the way. Huh? Pardon? I say you are live on air by the way. You are live on the radio and people around the world are listening to you. Uh-huh. You know, uh, a lot of journalists came to me, mm-hmm. and I told them that tomorrow evening I will call, uh, the journalists will come, I will give them an interview. Okay. But so far you are live on the radio. Mm-hmm. I will want to make a few comments on what is happening. Okay. Uh, first of all, the APRC National Executive Committee, which I lead, mm-hmm. is still the legitimate uh, executive of the APRC. Okay and, and uh, it is supported and blessed 100% by the former party leader. Okay. Which you are, which you are the uh, leader. Which you are the leader. Yeah, the former party leader, that's uh, yeah. president, former president Yaya Jammeh. Mm -hmm and uh, I have I have I I, I had uh, I had communications. You know, there was remarks made by Honorable Guy, uh -huh. for which we had a meeting. Mm -hmm. And uh, earlier on last week, Sunday, we were at uh, uh, President Barrow mm-hmm. to discuss some other issues. Mm-hmm. But uh, what, what I want to tell people is, you know, uh, in a political game, mm-hmm. people, people come into politics for many reasons. Mm-hmm. But I have been a founding member of the APRC, mm-hmm. and I have served in the executive. Mm-hmm. And all what I have got mm-hmm. as an individual. Mm-hmm. I got it through the APRC and the support mm-hmm. and and the, the supporters who mm-hmm. supported the party. Mm-hmm. That was why when when when when the impasse came and things turned bad, some of us will have to sacrifice to make sure that those supporters who supported us during our good days mm-hmm. are not are, are, not left abandoned. Mm-hmm. That's why we came on board. Mm-hmm. And uh, the recent events, mm-hmm. the recent events that uh, people are saying the national executive is gone, we have a new executive. Mm-hmm. I am privileged to talk with His Excellency yesterday. His Excellency, the former who? president. The former president, okay. The president, the former president, yes. Okay. I, I want everybody to hear that. Okay, that's good. And and uh, and uh, and uh, and uh, what I got from him, I'm a Muslim, and uh, I'm, I'm, I, am we are in the month of Ramadan. Mm-hmm. I'm an elderly man, mm-hmm. you know. I'm not in, I'm no longer in politics for anything else mm-hmm. besides to make sure that the party I believe in moves around. Mm-hmm. And uh, uh, he, he he told me that in, under uh, under no circumstances would he be able to stamp me on my back. Okay. His words. Okay. Yes, we may have different opinions, we may go to different political parties, but whatever. Mm-hmm. But he can never forget me until he will stab me. That will be his road to hell, according to him. Okay. And so that, he has uh, he has uh, no interest he, to come he, back. Former President Yahya Jammeh has no interest to come back and read the APRC, if I understand you right. So to what the APRC? To lead, to lead, to lead yes, yes, former President you know, you know, politi- politi- politics is ongoing. Mm-hmm President we first of all, he, every, we all know that eh, uh, anybody who is who is who's gone on exile, we want to come back to your country. Mm-hmm. But I mean, to, to I mean to no, lead, to lead, for, for, him to come back and lead the APRC, he has no interest of doing yeah, that, right? That, that, no, I cannot say that. I cannot say that because the leadership of the APRC is determined by the APRC. Okay. Through a through a process. Uh-huh. So even if somebody is there and he's gone out, mm-hmm. if, the, mm-hmm. if, the, if the membership of the APRC wants somebody back, mm-hmm. they have all right to bring him back if they choose to. Okay. That is the party. But what we do know now mm-hmm. is what I am telling you. Mm-hmm. So, but there are clandestine groups within the within the APRC mm-hmm. that are hungry for whatever reason they know best. For us, our principle is we have dissected the APRC we know our weaknesses. We were in government and we know our strengths. Mm-hmm. And we have resolved. So is one correct to say that Sidinjai has left the party? Is no longer a member of APRC? No, Sidin no, has not told me that. Okay, so he's still the, of the PRO of, he's still the PRO pardon? of the APRC, right? He's still the mouthpiece yes, of the party. He, uh, as we speak now, he's still he's still the spokesperson. To the best of my knowledge, okay, he has not told me he has left and he has not told me that he has resigned or whatever. He has not told me. Okay. And to the best of my knowledge, he's still a member of the APR. So, how about his comment about President Barrow, him pledging his support to President Barrow? Yeah, that's in fact that's why we wanted him to clarify himself. We want to know what because he is he he, he is wearing the cap of the APRC, mm-hmm. and as spokesperson, what, what, when you say something, people take it to be the position of the party. Uh-huh. And uh, what he meant by that also, we need clarification. You know, we are we are a structured and uh, uh, a party with rules and regulations. Mm-hmm. So we, it's only in fact that Friday meeting when this thing happened, that was the focus of the meeting was to address the issue of CV, mm-hmm. to know what it is for the party to take a position. Mm-hmm. So as I am as I am saying, mm-hmm. this is the situation. And remember, I want to add this. Mm-hmm. You see, APRC mm-hmm. as a party, Habakari cannot just jump up and say, "I dissolve the executive. I do that. I do that. I do that." If no, we are no more in that era. We are in the 21st century. Mm-hmm, mm-hmm. So how this how did this dissolving by... of the executive all came about? Did you actually resign from the APRC? I have not resigned. I have never. And I, I don't know how I can resign from the APRC. Okay, I mean from the leadership, though. Your position, have you said, retired from the APRC leadership to hand over? How did this whole thing came have, about? I, I have not retired. I have not handed over. I have not. I have no intention of retiring or giving back all this. What I am, what my intention is, to put the APRC on a strong footing. Mm-hmm and uh, uh, we will allow the next generation to take over. Mm-hmm. That's all what we are interested in. Okay. So, so how did this whole thing saying, came about? Go ahead. As I was saying, mm-hmm. you know, in, in, in a party like any other party, mm-hmm. you have various people with various intentions, various interests, and all these things. Mm-hmm. And these things can create, if people are not matured enough, they can create problems and divisions for them for their personal interests. Mm-hmm we at the leadership, as long as I am the leader of the APRC, that will not be tolerated. Mm-hmm. Anybody, you must be selfless, you must sacrifice, you must be honest, you must be straightforward, you must be committed, and you must be sympathetic to the cause. No double standards. Okay. Everybody, anybody has a right to join or to go out. Mm-hmm. Yeah, but Nobody, the party does, will not allow people to be from within destabilize the party. Okay. So that so, so if Sirinjai's stance is that he supports the new um, the um, uh, president and all of that, if what is being said or how it's been perceived is actually what CD means, what's going to be APRC's stance? with him. Yeah, that's that's that, that, that's what I said. We are having an executive meeting again because that one was disrupted. So we are having an uh, and we will we will come to conclusions on those things because as I said, we have to give TD a chance to explain himself, mm-hmm. to say what he meant, and then that will inform the party to take whatever decisions it will make it may want to take. Mm-hmm. It's not unilateralism. Oh, okay. Even if you go, so, uh, to, that's, that's what I said. If if he is to come and confirm to you guys that yes, that's his new stance, he's considered like um, um, um, um, um, he stands by his words, he supports President Barrow, and everything he said is actually how it has been interpreted or put it out there. What will APRC do? No, that one, you know, it's not for me. That, that, that will be the executive to determine. But what I do know is Sidi has a right to stand by his words. See, even without those words, Sidi has, has a right to say he has left the APRC, he is joining another party. You know, people's rights must be respected. Okay you know, everybody. But what is important is the party is bigger than anybody. Mm-hmm. Let Fabakari not believe me. In the absence of Fabakari, the APRC will not go. Mm-hmm. you know, you understand me. Mm-hmm. But even if we have different opinions, I should, I can, I can disagree with you, but I should respect your opinion. That's right. But I, I reserve the right to disagree. Mm-hmm. That's so right. So that is the principle we are going in. We are not rushing. We are not following. We are not being pushed around and all these things. All what we want, we want to ensure is our pledge we have done that APRC would be a democratic, transparent party, and that, that we would do as much as possible to make sure that we are governed by rules and regulations. So there is no. So so you said um, uh, uh, uh, um, what is Mister um, uh, MA Abbas' responsibility or role in the APRC as of now? You know, MA, if you remember some time ago, MA was not part of us. Okay. MA, we brought him in and then made him a deputy this thing. In fact, it's not even registered. MA is not part of the official list of the APRC executive. We brought him in. Mm-hmm. You understand? Mm-hmm. Yes. And uh, we have uh, we have not taken any actions against him. We still see him as a member of the party, as a member of the executive. Okay, but how did this whole, what we don't know is how did this whole thing of MA becoming the new interim leader of the party came into being? How did that whole thing happen? Yes, you know, some of some of those. This is why I am granting you this because you called and you said you are alive. And I appreciate it. Thank you very much. I appreciate you talking. yes, me. I, I will. I will want to assure you that we are coming out with a detailed analysis and everything of anything and opposition. So I, I, am grateful for your call mm-hmm. and that we believe that information should be disseminated, but it should be information based on facts and evidences. Mm-hmm. It's not just be somebody jumping saying what you want, what you want all along. So did it happen though that, that that um, just briefly that MA was the leader of APRC, even if it is for ten seconds, or he has never been the leader. You had always been the leader. Your position has never changed. Never... Always, look, what I told you is I have ever been the leader of the APRC, and I'm still the leader. You see, for change, for change the leadership, it's not the whims and caprices of one person to change a leadership. That is, that is a family, that, that, becomes a family. This is a party, a Gambian party, mm-hmm. structured under with regulations. <laughs> So how can you, one person just sit down and say, today is no more this, is that. Then the next, then three days later, it's no more, somebody says, it's no more this, is that. <laughs> I mean, let's, let's be, we are in the 21st century. Then, uh, uh, eh, the world is moving and we want to move with the world. We want the best for the Gambians and for APRC and for all Gambians for that matter. Okay, good. So besides um uh, that, um we I want to ask you about your your um national your candidate for Gunjur who was arrested um lately. What's the APRC stance on that arrest? That's what we've been talking about earlier. What is the stance of the APRC yes. on the arrest of Mr. Omar? Ture? Yes, when when yeah, I have sent I have sent we are we are working on it. I have sent three of my executive members to find out, and uh, they are they are on it. And uh, tomorrow, by God willing, mm-hmm. we will get something. You know, it's a weekend. Mm-hmm. Remember, mm-hmm. some of the key players are not within, but we will get some some of the facts and then our position on it by tomorrow, God willing. Oh, okay. Mm-hmm. So you and the former yeah. president, I mean, is uh, what what else did you discuss with him? Hey, hey, hey! Now what else uh-huh. did you discuss with the former president? That's something that folks are interested to know about. What else did you discuss with the former president? No, we, no, you know, you know. Remember, remember, discussing with people, it can be on private life. Mm-hmm. Like I, you, if I am out of the Gambia, I mm-hmm. have friends here, I have mm-hmm. good wishes here. I can, mm-hmm. we will be able to talk and discuss issues. So was that the first time you spoke to him since he left, or have you guys been in touch? No, sometimes sometimes we we we come, we salute each other, greet each other. No, oh, okay. And how is he doing? Yes. How is he doing in Equatorial Guinea? Uh, he, yeah, to the best of my knowledge, he's fine. He's, he's doing fine. good. He's doing good. Mm -hmm. He has mm -hmm. any plans to come back yeah. to the Gambia anytime soon? The ah, commission of inquiry, the, en, the I, I, I, commission of inquiry was just calling him. They want him to show up. I mean, is he gonna come for that, or is he just gonna come to Gambia because he missed the Gambia and the people? I know, I know, I don't, I don't, I cannot answer that question. But I know one thing. I taking it for myself. Mm-hmm. I everybody, if you go out of the Gambia, however difficult, you one day want to come back to your country. That's right. Anyway, that that is that is that is normal and human. Mm-hmm. Okay. You know? So are you guys having a press conference tomorrow? Is that what it is, and what time is it, so that we can send our team? Yeah, yeah, yeah. You know, uh, as I said, uh, we will talk over it. If it we lost Fabakari Tombong Jata, it looks like. Um, yes, um, we lost him. Uh, let me try to get hold of him one more time to actually um, wrap up the conversation with him uh, Fabakary Tombong Jatta njiiti APRC lañ nekkoon di waxal ni um, fii ci Gambian Talent Radio lu tax Gambia du dem show Ah, nga xam ne ñu indi leen ko dimanche bu nekk ah, mu nekk APRC parti bi moom moo ko jiite ba tey not even a second did he ever not become the leader of the APRC moom moo jiite parti bi Fabakary hello yes we lost the, you on the line sir yes Pa Ousmane again yeah as I said I said even if we are unable to make the press conference tomorrow we will have to give our give a press release okay All right. And then to be followed probably by a press conference. By a press yes. conference. Okay, you keep us posted, and our office will gladly attend that. Um, what is your last word to our listeners? Yeah, I just want to urge uh, all Gambians, first of all, you know, uh, this, uh, I want to encourage people, these WhatsApp or chat groups and all these things. Mm-hmm. We should, we should all try to make maximum use of it. Mm-hmm. Let's avoid insults, character assassinations, uh, uh, punishing people's image ir- uh, irresponsibly. The Gambia belongs to all of us, and the peace and security and stability of this country should be our collective responsibility. Mm-hmm. Two, everybody has a right to belong to whatever political party you want to. It is the responsibility of political parties to come out with their programs to convince people to join them. Mm-hmm. You cannot coerce people. You cannot force people. It's only your programs and what you want for the people will will make people make a determination of where they want to belong to. And we must respect people's opinions. And uh, uh, let's please put uh, national interest above all in, all other interests. Mm-hmm. That's all what I want to send to the people and to ensure that we live as brothers despite our political differences. Okay, so we are all Gambians and we respect each other for your political opinion, but let's live as brothers. Let's live in peace. Peace is it is priceless. I'm telling you, mm-hmm. you know. So that's what I want to send to the people and to tell the APRC, all APRC supporters and sympathizers, that the National Executive Party of the APRC still remains as it used to be, no changes. Uh, thank thank you very we appreciate you talking to us uh, mbokk yi yéen a ko déggandoor macha allah kookoy Fabakary Tombong Jatta ki nga xam ne moo jiite parti APRC um, ci Gambia uh, dégg ngeen kàddu gi comme ni ma ko yàgg a waxee nag ne ñu ne werante xuuxaan te mi ngemba te nettali si gémmiñi boromam uh, kon Gambia ñu bàyyi wax ji coow li bari na bi passé liñ dégg ci APRC parti bi dafa tas Fabakary Tombong Jatta dafa resign mom moy jité parti bi wala jité wut ko this is something lo xamné ñu ko dégg ñun nak we have a responsibility pour verify. Ah, leneen lenen lo xamné kat news la mu né wax nak président Yaya jame ndeysaan jemusu Babili Mansa namana pour delu ci wat ci réew mi ah, comme nim ko waxé mu né kat Yaya jame wax na ko né daf ko bless Yaya Jammeh wax na ko ne duma la di la am suma support dohalal. bàyyee naa la lenge yi ndax yaaya dina dellu si waat pour ñëw jiite APRC e mu ne ma loolu du décision bu yaayaa war a meeg ah, ah, ñoom ni ñoo doxalee léegi am nañ seen seen pati lépp lu ñuy def rek foog ñu delloo waat ko ci pati bi waxtaanee ko foofu noonu ba d'accord ci luñ d'accord ñu jël loolu jëfee ko liñ d'accord ñu jël loolu jëfee ko kon ñoo dégg li nga xam ne moom la wax is very important pour ñu bàyyi xel yenn yi buñ dégg tël rek ne matt gi damm na and it's always good to verify affaire yi Aimé Ba mi nga xam ne kat moom moom lañ wax ne mooy njiit li mu ne moom Aimé Ba kat bokkut ci bokkutoon si APRC dañ ko xëcca xëj xëjal ko kooku nekkut even a registered member ci APRC turam nekkut ci seen kayit yi ci APRC si national committee bi waaye nag coow laa ngi newon woon ñom ñoom dinañ génn jox sen defen def sen stance dinañ genn wax sen stance dinañ waxtaan li nga xamne Sidi ndjay def na ko muy na wax ne mom dafa support president Adama Baro. mu ne ñom fiñ ci tollu moy dinañ o Sidi ni ki suba ñu tok waxtaan ak mom pour Sidi wax len mom lan moy stance am pour Sidi wax len lim wax lan la si mine mu leeral su nii dee pour mu génn waxtaan ak askan wi ba tey jii si moom xam-xamam bu ndaw Sidi Ndiaye still si seen parti bi la bokka Sidi Ndiaye still part of APRC dawut xaadiwut dawut xaadiwut dinañ ko oo ñu waxtaan ak moom su leen waxee ba pare ma ne leen su leen Sidi xamalee ne kat moom dafa support président Adama Barrow wala fan la féetee mu ne ma su boobaa dinañ decide li ñoo decide as a party waaye fi ñu toll nii ba jamono jii daal loolu mooy seen stance loolu mooy seen tekk kon ko koy Fabakary Tombong jata ma laaj ko ci affaire yi am sen waji nga xamne japp nañ ko mu ne ma weekend la yoni na ay ndaw pour ñu ko dem seetal loolu nonu ndaw yi suñ démé lépp luñ indi rek su ko défé ñu tek ko from there APRC gu es gi dal duñ top rek ne dégg ne tel rek ne mattaga damm na fokk ñu def seen i ak seen i kis yi ba xam li ño xam ñu ko gërem bi ko santa bu baax ci opportunité bi mu ñu jox pour waxtaan ak ñun kon li moy lu tax Gambia du dem show li nga xamne mom la rew mi di def ba tax bi du dem kanam man pa Ousmane li may def ba tax suñ réew du dem kanam yow mi di seetaan li ngay def ba tax suñ réew mi du dem kanam suñu njit ak ñiñ bàyyee yëfi li ñuy def ba tax suñ réew mi du dem kanam loolu lañuy waxtane ñu ngi leena a di leen gërem di leen santa ci seen ni am taxaway ak seen déglu bu rafet lu tax Gambia du dem soo la Fatou ndjay ñu ngi lay nuyu bu baax yaa ko taala suma sister nuyu naa la French Montana mu ne LOL Pa Ousmane you push the old part to the corner Amin Sire Jenkins nuyu naa la Tima Gueye maa ngi lay nuyu bu baax baax Osta T ñu ngi lay nuyu bu baaxa baax mustapha Justice ak képp ko xamne ya ngi déglu ci jamono jamono jii rek foti way nek ci penku xar gopp ngop wala ngalando lu gambe du dem ci woon pa ousmane nek lon ci gëna microphone bi di len ñaax ngeen jappalé ñu ndax jappalé ñu moy jappalé seen bopa jappalé ñu moy tax beñ mëna def li ni crédit bi jeex na fi beñ yokkat benen 25 dollars credit is very expensive pour ñu call Gambia live xam ngeen li ma wax pour call ay nit nek ak ñom ci line bi 5 minutes 10 minutes 20 minutes 30 minutes with regular credit xam ngeen naka la fa démé kon Fabakary tombok jaata ñu ko call on direct line Sidi ndjay ñu ko call direct line Madi sisek Madi jobate ñoom ñoom ñëpp direct line lañ leen kool Halifa Sallah ak ñiñ fi jot a kool yëpp yéen ñi dugga si bu yàggut nii si interview bi si programme bi jot nañ fee wax ak Halifa Sallah Madi Jobaate Madi Cissé ak kii di Sidi Ndiaye of the APRC doon waxtaanee ki nga xam ne mooy Amin sa Touré nga xam ne jàppoon nañ ko kat police yi di ko interrogate loolu lañ commencé waxtaan bi ñëw mujjee si nii nag si affaire yi APRC ak coow li nga xam ne moo nekk di xew ci seen biir parti bi kon ñu ngi leen ay bëggee di leen ñaax ngeen jàppale support through that link by donating to us. No amount is too small. Information is very hard to get in Gambia. Gis ngeen di running around we are having. Buga ngeen ñu cover leen that press conference ak lépp luy xew ci Gambia yéen ñi nekk bitim réew. Buga ngeen koo gis is very expensive to do. ñu fàttali leen ne su ngeen ñu jàppalee dina tax programme bi gën a dem kanam su ngeen ñu jàppalee dina tax réew mi gën a dem kanam su ngeen ñu jàppalee dina tax liggéey bi gën a dem kanam kon jàppale leen ñëw su ngeen ñu yónnee xaalis bi Gambie wala ngeen yónnee ñu ko fii dina baax incha allah ñu ngi leen ay béggee di leen gërëm di leen sant lu tax Gambia du dem show ngeen doon déglu jógee fii ci Gambian Talents Radio maa ngi leen ay béggee di leen gërëm di leen sant di leen jox dig daje su suba Ibrahima Gueye dina leen indeel di local news in wolof amin incha allah ak yeneen programme yi nga xam ne ñu ngi ko am throughout the week if you have not like our Facebook page like it Gambian Talents Promotion soo subscribe to suñ YouTube channel bi mun ngeen a seetaan show bi ci seen YouTube channel bi Gambian Talents Promotion ngeen subscribe am um, to the page mun ngeen ñoo toppa I mean wala boog ngeen follow ñu through other I mean social media channels yëpp ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen sant till we come your way next time lu tax Gambia du dem show ngeen doon déglu ba beneen jamono Following the memory lane to history the story behind the freedom of this country is victory see people say that this is the same country that bore the pain our children suffered in vain with their hands and legs bound by the chains that enslaved them fought our way through the dark era of colonialism held on farm and hope for better days during during those hard trying times when she was ruled by a dictator, a man who took over her, terrorized her children, and left them in pieces from which they are still trying to recover. People say that Gambia is a peaceful place with an amazing culture, a nation so nice with a beautiful structure that it is home of legends with great legacies, home of icons worth praise with the struggles of whom the red, white, blue, white, and green flag was raised, a nation known for its peace, love, and unity, inhabited by people blessed with beautiful smiles of humanity humanity. See, I am not denying any of that, but see, Gambia, Gambia is not everything people say it is. Do you know? Do you know that in the Gambia, corruption resides in the hearts of leaders? A place where politicians have plastic smiles fixed on their fake faces, other sweet words, and trick people into believing they're nation builders. Instead, instead they're actors and two-faced cheaters. The majority of the young people in the Gambia are currently unemployed, even though they have the results, the degrees, the masters, and all other required papers. Which is why a lot of Gambian youth embark on the risky journey of illegal migration, a journey that costs most of them their lives as they drown into that dream bedroom clashing ocean. You see, instead of figuring out solutions to this problem, everybody is busy pointing fingers. The young people, the young people blaming the government for not creating employment opportunities, for not giving them a chance to prove their capabilities, and the government, well, the government blaming the young people for their lack of diligence. Sigambi Bingaji's boy Bujanga by high school and all of a sudden drops out because he can no longer cope with the school system which he believes is too tough. Mutokir, where is I wajuram, wala mudori kampembera. Mora miguram bukoroba bro nakala fajma And when he's tired of this, he turns to the streets and earns himself a certificate in robbery, theft and drug abuse. Supare nan halis amut chona biaga na beligi mandal jisa to them back way. See in this country, everybody dreams to live in luxury, but instead we dwell in never-ending poverty. Do you know why? See, I will tell you why. It's because in the Gambia, people don't oppose each other with new ideas or innovations. No, in this country, people compete each other with juju and witchcraft. Nneka Dihole is someone with bad intentions, so do not be surprised that there is still no development in our nation. See, we are blessed with beautiful black skins, but we have hatred and jealousy in the blood flowing through our thickest veins. Just for power, people in this country commit the darkest sin. Even though more than half of the Gambian populace practices agriculture. In this country, a man can rape an innocent girl, take away her pride in the silence of the night, and get away with it because we are so blinded by our culture relationship. Lumagana na this gambe bimwe, we don't even support our own. Thing I just a promoter who is willing to pay hundreds of thousands of dollars to a foreign artist but is never willing to do the same for his own. For his so if Gambian artist we Ote show, the number of people you find them you can count and know why Chete is with foreign artist Binyewe. Kuneka diligently Harris for clothes and tickets, all of that just for show. I mean I know the Gambian music industry has some whack artists who already release crappy songs. Some who are too busy hating and beefing on each other which is totally all wrong. But there are a few good ones who are hardworking and have proven to be strong. So why can't we appreciate and support our own? Legi funi duga si deka bidega New Gambia. Well, I tell you something. There is no New Gambia. There is just a new government ruling over the old corrupt system, a system under which we are all victims. In this so-called New Gambia, everybody writes and says what they want and call it democracy. Well, I don't know if it's just me or everybody else is actually turning democracy. crazy to the new government. We know y'all want to make our nation rise, turn it to a country that will take all by surprise. But see, even development comes with a price. We had voted for change once. Who says we can twice? Power of freedom. Following maatee ñu naan tekka bii du dem balaa maatee ñu naan tekka bii du dem way naka la mooy demee fekk elente wun jàmma ku nekk bëgg a wana sa morom mel ni su desoon si yéen ni kon du nokki oxygène pa Ousmane yokkal ma mic bi ndax ma mun a toog du dem lu tax Gambia du dem ni lañu sister Iva Eh ni dem Pa Usman. No Pa Ousmane lu tax Gambia du dem show every Sunday la on Gambia Talents Radio hosted by Pa Usman Diouf and Iva side O. Oh. New them. 6 p.m. La GMT, just in case you ain't know. New them, new them, new them. Luther Gambia do them show every Sunday live on Gambia Talents Radio. Hosted by Pa Usman Juf and Eva Sad. Oh, 6 p.m. La GMT, just in case you ain't know. New them, new them, new them, new them. Blade, blade, blade, move. <laughs> dégluleen dégluleen dégluleen ko Gambian talen amul morom dinañ la bégal waaw waaw déglu leen déglu leen déglu leen ko Gambian Talents amul morom the Youth Bantaba Show on Gambian Talents Promotion. This is a program where we'll be talking about crucial issues that are affecting children and youth in our society. Issues like child marriage, teenage pregnancy, child labor, unemployment, child neglect, early marriage, and the list goes on. And remember, I made mention of child neglect, and this is one of the burning issues that is affecting children in our society. And sometimes we tend to sideline such issues. Do not miss this show on Garments Talent Promotion every Friday from the hours of 12 to 1 o'clock. Bye bye till we come your way next week. ka gesen gesen yan gonde mamoy ngoto e julolo fenne ka gesen gesen yan gonte mamoy fonde ma boy dindin faloli mindi bali ɗum ni sanjotilole boyta dindin i fulanti yan gambia talent promotion al fulanti yan itolle ɓe jan mbiye ñaato gambia gambia talent promotion mun tolle tati aliŋe makoye e ka gambia lallondole puus ñaato niyamo e gambiya talen promotion wole mandi ka kaŋola ka gambiya la londo samma ñaato ay wule ye yewla déglu leen déglu leen déglu leen ko Gambian Talents amul morom dina la bégal waaw waaw déglu leen déglu leen ko Gambian